aouzu billahi sami al alim mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidil mursalin sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa eh, dellu siwaat di nuyu mbokki internet yëpp di internet yëpp di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen baalu di amaat mbégte bu baax ci dellu siwaat gi nga xam ne dellu siwaat nañ ko ci fii ci Cheikh kër Cheikh Omar Diop ñu war a amalaat waxtaan xam ne jotoon nañ fi waxtaan ci jamono yi paase euh, waxtaan yu am solo mu am ay message yu am solo yoo xam ne nii jàllale woon na ko ah, macha allah ci liggéey bu réy bi nga xam ne mu ngi koy liggéeyal lislaam Cheikh Omar Diop àddina kenn laajteetul ko Sénégal kenn laajteetul ko umma islaamik bi kenn laajteetul ko ndax liggéey bu réy bi nga xam ne mu ngi koy liggéeyal lislaam ak doomi lislaam di jaamab yàlla boo xam ne dundam lépp daf ko jël jébbal ko yàlla ak yonentam ak diine ji nga xam ne moom moo dox suñu diggante ak yàlla ñi di ko jaamoo yàlla te yàlla indil ñu ko joxal ñu ko ki nga xam ne mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam diine ji dem ba toll ci jamaano joo xam ne dem na ba tumuranke ci mm-hmm. doomam mm-hmm. diine ji ci boppam moom tumuranke wu ndax mu ngi ci loxol yàlla mm-hmm. waaye ay doomam yi nga xam ne ñoom ñoo ko ngënk nax nañ leen orienté leen ci orientation boo xam ne dem nañ ba gëlëm gëlëm nañ gëlmaane goo xam ne gisatuñ kenn ku leen gindi ndax ñañ amoon ñi fi nekkoon ñu bari demoon nañ ba nga xam ne koo ci wax rek day wax ne ah bu fi diw nekkoon bu fi diw nekkoon gannaaw ga nag gis nañ ci Cheikh Omar Diop mu jàmbaar ci lool volontaire am ci volontariat beneen volontariat boo xam ne ci liggéey bu rëy boobu nga xam ne moom lañ daan fàttali ko mag ñooñu mu taxaw devant àddina yépp taxaw ngir jubbanti li nga xam ne moom la doomu aadama yépp doon jooy rawatina jullit ñi ci nangu gi nga xam ne ñu ngi ko noonu nangu lislaam ci ci suñuy loxo mu liggéey ci liggéey bu rëy boo xam ne résultat yi àddina yépp ñu ngi koy commencé gis lu bari ñu ngi ko doon jooy lu bari ñu ngi ko doon jaaxle ku ñu ci dimbale yàlla def na ci loxoom ak ci mbaaxam ak njàmbaarteefam tax na ba loolu ñu ngi ciy jotaat bokk na ci mën ki nga xam ne Iblis détourné woon na ko àddina ngir jëmale jaami yàlla yépp ci boppam alhamdulilah ci liggéeyam bu rëy ak jàmbarte ak fitam nangu na loolu ci loxol Iblis ñu ci sant yàlla bu baax waaye nag di ko ci sant bu baax di ko ci gërëm ndax mënoon na ko caa bañ a fekk mënoon na dugg néegam tëju jaamu yàlla def ni ñëpp def ba dundam jeex mu ànd ak ngërëmal yàlla dem fa ko fa soob yàlla alhamdulilah yàlla na yéex waaye deful loolu ba ko yàlla maye fit may ko xam-xam may ko doole ba pare dafa jóg loolu yépp mu jël ko taxaw samp ndëndëm si digg àddina si digg lislaam ne lépp loo xam ne naqari woon na lislaam rek tey naqari woon na doomu lislaam tey danaa ko fajal doomu lislaam kon ñu ngi sant yàlla bu baax gis nañ lu bari lu fi amoon nga xam ne noonu yàlla bi moo ko fi sampoon tey moo ko fi dindi buñ ko doon lim du jeex waaye ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci biir liggéey boobu mu di ñu ci dimbalee ñu di ci ànd ak moom ci mbaaxam gis nañ ci lu baree baree bari wax na ci it ci ay message yu baree baree bari ku dem ci page Facebook am da ko fekk lu bari ci yoo xam ne mu ngi koy waxtaanee bokk na ci ci feebar yu bari yi am tey alhamdulilah ah nit ñu bari ñu ngi am tawféex à travers moom ñu bari aussi ñu ngi doon jaaxle ci problème mu julli jaamu yàlla normal ñu ngi si doon am problème dimbale na ci jaamu yàlla à travers moom. àddina bi ci boppam waxuma Sénégal waxuma Afrique mais àddina monde entier lépp mi ngi ànd am déstabilisé boo xam ne ni jaaxal na àddina lépp mooy dal gi àddina dal jékki-jékki rek dal ndax boo xoolee tey deux mille dix mille dix neuf yàggul même pas un an ah mille dix neuf deux mille vingt ba ay mois de mois de mars. arrière tuuti ba mois de mars da nga gis Sénégal wala àddina ni mu yëngoo woon ak ba mu commencé di waxtaanee li nga xam ne ba mu jugee taxaw ngir définir àddina définir seytaane pour jëlee ko ci àddina ak lépp liggéeyam jippi boobu ak léegi ku ne xam na ne am na changement bu rëy rëy rëy bu ci am rawatina jamono yi passé boo xoolee ci faydu Maulana Cheikh Ibrahima Niass bi sax amoon na fi coow lu fi amoon maam maay baay maay baay keroog ba mu ca waxee ba léegi déggatuñ ci kenn ku ci waxati te moom képp moom moo jug dama àddina yépp taxaw ne li ñuy woote noonu wérul te depuis boobu ba tey kenn déggatut ku ci wax bokk na ci tey su ma toogoon di ko lim dafay du jeex te loolu moo doon dundam kon Cheikh Omar Diop moomu moom moo taxaw ngir janoo ak yéen tey waxtaan ak yéen ci waxtaan bu am solo boo xam ne tey képp koo xam ne nii yaa ngi ci lislaam yaa ngi ci diine lislaam yaa ngi ànd a ngëm yàlla tey li mu war a waxtaaneew ñor na la muy waxtaan ci wàllu daara diggante daara ak nguur yi fi jàll diggante daara ak doxalinu daara daara forma formation bi nga xam ne walla Euh, tëralin bi nga xam ne tëraloon nañ nañ ko daara magu daara yi muy mag ñi nga xam ne ñoom ñoo fi doon jàngale tëral daara doxalin bi nga xam ne moom la moom lay doxee ci jàng alquran ak nañ ko doon jàngalee ak ni nga xam ne noonu lañ daan former doomu daara muy nekkoon formation boo xam ne formation bu extraordinaire la nga xam ne képp koo xam ne génne na si biir daara rek boo ko gisee da ngay xam ne kii kuñ defar la gannaaw ga dem nañ ba jamono ñi gis ne loolu dafa mel ni lu commencé di dëñ ci àddina bi dafa mel ni li commencé di dëñ rawatina fii ci senegal Sénégal ñi gis tey boo gisee mag ñi nga xam ne nii ñu ngi jugee ci yariñu daara bi nga xam ne moom la mag ñi daan yare ak ñi nga xam ne moom mooy yariñu daara tey ñi gis ci daara yooyu nga xam ne moom moo am ci jamono ji tey ah, jaayante doole bi ci am ni ñu koy mën a tuddee euh, nga gis ne da ngay gis ah, ah, sëriñu daara boo xam ne sax dafay yar taalibeem ñemewul ko sax léegi jubbanti ne ko nii ngay jànge wala waroo jàngee nii heure bii ngay jàng heure bii ngay wàcc heure bii ngay doxalee nii comme nit ñi daan jàngale ñu ñu nga xam ne jaar nañ ci daara boo jàngee mokkaloo ñi dóor la pour nga góor góorlu jàng sa leçon mokkal ko ñu gis ne loolu kenn ñemeetut ko taalibe bu njëkk bu tëwaan daan daw daara ji wala mu daan def yoo xam ne dafa koy yàqal jàngam nañ ko daan jubbantee ba mu nangoo jàng ñu nangu ñu yar ko loolu ñu dem ba gis na léegi kenn ñemeetut ko loolu di dem di dem ba dem nañ ba gis sax léegi dem nañ ba gis ne sëriñi daara yi sax dañuy dem ba am fitu di leen dem di fekk ci seen daara yi di leen jàpp di leen yóbbu di leen tëj ci kaso yi ñi dem ci loolu ba léegi dem nañ ba gis ne ñi nga xam ne ñoom ñoo yaroo ci daara sax ñemeetuñoo wax dañuy gis loolu teg ci seen bët doo gis kenn ku ci ñemee wax doo gis kenn ku ci ñemee jëf doo ñëppay toog di nëppi ku nekk naan bu fi ndiw nekkoon bu fi diw nekkoon bu fi diw nekkoon mu mel ni ñi fi nekk mel na ni ñooñu ñuy wax ne bu ñu fi nekkoon du ñu ñoo leen yar def ci ñoom la nekkoon ci ñoom loolu dem na dem na dem na dem na dem na ba egsi ci jamaano yii nii nga xam ne daara dem na ba kenn xàmmee tut ko ak yeneen yi nga xam ne ñoom ñooy yar nit ñi ci wàllu njàngin mm-hmm. léegi nag ñi gis Cheikh Omar Diop ci doxalin bu réy bi nga xam ne mu ngi koy doxal ci wàllu lislaam te ku wax lislaam wax alquran ku wax alquran wax njàng alquran ndax mun nañ ne moom mooy constitution euh, lislaam muy alquran te ku ne war nga ko mokkal te gis nañ ni daara di doxee doxalin bu bu tumuranke bi nga xam ne métti na dig daara di ko doxee ñu ñëw nag pour waxtaan ci ak yow di la si laaj ana ban doxalin moom nga am ci doxal ko ci doxalinu daara ci jamono bii mu nekk par rapport ak jamono bi nga xam ne moom la daan doxee changement bi ci am torture gi nga xam ne ni ñu ngi koy torture doomi daara yi tiital ak xoqatal gi nga xam ne ñu ngi koy xoqatal doomi daara yi ba kenn ñemeetu te yar sax nit ci daara ba mu war a yaru comme ni daara daan yaree nit léegi ne ñi lay laaj ci loolu ana ban njàngat nga ci am ak ban doxalin nga ci am ci liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy liggéeyal lislaam loolu moom mooy tax ñu jóg tey pour toog waxtaan ak yow ñu ngi lay dalal bu baax ci fii ci Facebook bi Facebook Facebook Cheikh Omar Diop man moom laa ko tuddee Cheikh Omar Diop doomu lislaam ñu ngi lay dalal ci Facebook Cheikh Omar Diop doomu lislaam di la laaj nag ci daara jooju nga xam ne moom lañ pare pour waxtaan ana ban doxalin nga ci am gannaaw ba nga xam ne dalal nañ la di la wax askan bi yépp ñu ban ban jàngat nga ci am ban doxalin nga ci am ci liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy liggéeyal lislaam gis nañ ci résultat yu bari te ba léegi déggaguñ nga wax ci ci daara. ban engagement kon da nga naan ban engagement engagement boobu laay wax sax ban engagement nga ci am. ci liggéey boobu ci daara ak doxalin bi nga xam ne mu ngi koy doxee ñu ngi lay dalal bu baax di la wax bismillah tafadal maskura loolu rek mooy sa question. waaw loolu bokk na ci question waaye dañuy démarrer ci question boobu. Mm. beneen question bi mooy euh, état. wala nguur nguur yi nga xam ne mi ngi am ci Sénégal muy état. président yi fi am. Mm. gis nañ saa su ne euh, doomu Sénégal muy population bi tout temps ñu ngi gis. dox euh, mit euh, jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi am ci biir Sénégal ak ci doomu Sénégal ba métti métti métti yooyu nga xam ne ñu ngi koy dund jafe-jafe yooyu saa su ne dañuy dund ci loolu muy métti di métti di métti bañ dem ba defee ne président bi moo ko waral ñu obligé changé waat président wàcceeku kooku falaat keneen mais du trait tout le temps rek affaire yi dafay gën di métti loolu jaaxal na ñëpp. képp ku wàcc bu yéegee rek day mel ni ki fi nekkoon moo fi nekkaat même coow li même wax ji la nit ñi di jàmbat loolu jaaxal nañu ñun ñépp ñi lay laaj loolu it ana ban gis-gis nga ci am ak lan li ci xam nga yee ci jaami yàlla yi ñu xam lu ko waral ñu xam lan moo la ñoom daan ñu mën a gindeeku mën a xam fu ñuy teg seen tànk ba bu ëllëgee buñ taxawatee pour yar pour fal danañ xam naka la ñuy fale ki ñuy fal Ah. bisimilah. question yi jeex na waaw. gannaaw ga bu ñu paree leneen dana. bu yàggee ne question yi dana nekk <laughs> ñu ngi lay dalal bu baax ci Facebook Cheikh Omar Diop doomu lislaam bisimilah tafadal. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. aouzu billahi min alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din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 rabbi israh li sadri wax yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli hmm. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen nuyoo nuyoo lislaam ñaan jàmm ci réew mi nuyoo bi ñu ngi ciy jiital mbooleem koo xam ne kilifa nga ci diiney lislaam fii ci réew mi ak koo xam ne kilifa nga ci mbooleem lu jëm ci wàllu aada fii ci réew mi hmm. di nuyu doomi réew mi nekk ci réew mi ak doomi réew mi nekk ci bitim réew ak mbooleem jullit fu mën a nekk ci àddina dis hmm. waxtaan wi yaakaar naa concerné na la waaye ñu lay nuyu nuyub islaam hmm. eh, Cheikh Fadal su ma déggee sa laaj bi daara mhm. ngay ngay laaj ak nguuru Sénégal yi fi jaar mhm. ak jafe-jafe yi nga xam ne doomi réew mi ñu ngi koy am mhm. bay waral ñuy changer ay ay chef d'état te waxtu wuñ ko soppandee rek gis na muy gën a métti ci ñoom bu njëkk bi mooy nga ne daara da gis ne doomi daara ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon nekk mag ñi nga xam ne ñoo tabax lislam bi ci réew mi Euh, ci anam boo xam ne anam bu mucc ci ayib la hmm. ba ñu gis tabax boobu ñu tabax lislaam bi ak daara ci réew mi hmm. ci seen méthode bopp lañ ko tabaxee hmm. ba gis ne liggéey bi nga xam ne liggéey nañ ko gis nañu résultat bi ba gis nañ ne képp ku nekk ci réew mi rek ku nekk rek tey jullit am nga ci genn kër goo xam ne ca nga aju euh, léegi la fi yeneen ay kuréel dugg hmm. nekk ay gan ci réew mi dugg fi hmm. te ajuwuñ ci këri diine këri sëriñ si hmm. waaye yàgguñ fi yooyu yëpp doxalin yaatuwaay àddina ak ubbeeku àddina moo ko indi waaye mag ñi ñagoon nañ réew mi ñeg boo xam ne demoon nañ ba nga xam ne ku dut ñoom munoo fee am dàll waxuma laa dafa am kër waxuma laa dafa am sañ-sañ di wax dafa am nuñ tabaxee woon réew mi léegi nag loola ci jëmi boppam àddina mooy dox état yi di ñëw di sàppeeku suñ chef d'état yi di ci am ay wàll yuñ ci rôle buñ ciy joué doomi daara yi tamit di ci am rôle buñ ci joué nga laaj lan moo tax mag ñi lu ñu ñu yaroon te nekk fi ñu gis ne léegi ñu ngi njatt daara ñu ngi leen di xatal ñu ngi leen di sonal te gisuñ ku ko mën a saafara mu dem ba egg ci ñoom ñiy xoqatal daara di leen tiital hmm. egg ci jël doomi daara yi jël sëriñ daara yi di leen tëj ci kaso yi hmm. te gis ñi nga xam ne ñooy yàq hmm. dëkk bi di def lu leen neex kenn tëju leen ci kaso yi donc mu mel ni kon dafa am ku ciblé daara di ko xeex ngay laaj man sama gis-gis ak sama taxawaay ak ban jàngat laa ci am waaw li ma li ma ci mën a jàngat jàngat bi dafay xóot hmm. te dafay concerné doomu daara hmm. concerné kiy xeex daara hmm. ndax doomu daara wolof dafay wax ne bukki bu ñemee waxambaane ca doxin wala kon da toog loolu nga laaj noonu wax ko firi ne doomi daara yi amatuñ baatin moo tax ñu ñeme leen ndax bu xamee boo xamee ne kër gi am na fetal mm-hmm. timis gu jot mm-hmm. ñu suq soqi benn bal mm-hmm. sàcc yi dëkk ci quartier bi duñ dugg ca kër ga bu sàcc ñemee tëb dugg sa kër gi te dëkk ci koñ bi leer na ko leer yàlla na kër gi amul fetal te xam na ne guddi da ngeen di nelaw loolu moo tax ñu yàpp doomi daara waaye doomi daara ba muy am baatin nga xam ne ku ko wokk mu gajj la te bu lay gàjji kenn du fekkee mm-hmm. booba ya respecté woon nañ daara mm-hmm. nawoon nañ daara mm-hmm. foofu laay njëkkee beneen bi ci topp mooy doxalin bi nga xam ne mu ngi dox ñu ngi koy doxalee daara di tabax di yar am ñoo xam ne dañuy rax ci biir daara mel ni waa daara fekk ñoom waa kër ñi leen di xeex lañ waa kër ñii xeex daara ñii xeex daara lañ loolu dinaa ko leeral ndax bul bul fàtte mukk ne iblis lislaam mooy ennemi première bi nga xam ne moom la am moom rek mooy ennemi l'islam boobu nga xam ne iblis moom moo nekk face ak moom nit ki bu la bëggee wolof dafay wax ne su la sa noon bëggee jeg jekku mu të day seet fi la gën a jege mu jaar foofu pour jot la wala mu yàqal la donc ñoom dañuy tabax ay daara mhm. waa kër iblis mhm. dañuy tabax ay daara comme daara mhm. ñoom seen ay ustaas lañuy jàpp yaa ngi dégg bu ñu seen ay ustaas jàpp ay seen ustaas jàpp seen ay ustaas ba nit ñi miin jàpp ustaas waaw ñu soog a commencé dem di jàpp ustaas yi jàngale ci daara nag dëgg-dëgg ndax soo fàttalikoo waaw amoon na ci ay jamono ñu daan am garage yi. Hmm. ñu daan am ñoo xam ne dañuy ñëw di ubbi. waaw di jàngale. di jékki-jékki ba yàgg nga dégg ñu tëddee na xale ba. waaw léegi jékki-jékki ba yàgg ustaas bi duñ ko gisati. te buñ ko jàppee yóbbu ko. kenn du xam suite bi. te ustaas boobu kenn du xam fu mu jógee. Hmm. kenn du xam fu mu dëkk. jamono bay ñi daan tëddee xale ya. jamono yooyu. waaw booba lañ doon préparer pour attaquer daara. waaye waa daara comme ñoom dañuy dañoo dañoo naagu. du setantal mm-hmm. bu message di am duñ ko bàyyi xel mm-hmm. lu bari dañ koy sàgganee mm-hmm. loolu moo tax ñu leen di jekku te pourtant ñoom méthode bi ñu jàngale ak xam-xam bi ñu yore xam-xam boobu moo gën a baax mboolem xam-xam yi yàlla di jàngale ci àddina mooy xam-xamu alxuraan ak xam-xamu diine boobu mooy xam-xamu dëgg dëgg dëgg bi donc man doomu daara laa ci daara laa juddoo ci laa yaroo ci laa màggee suñ kër daara fa nekkoon li may wax nii ñu ma bokkal dëkk xam nañ ko. Mhm. xam nañ ne Ndofane suñ kër. Mhm. Euh, daara. Mhm. ñun ci lañ juddu ci lañ yaru ci lañ màgg ñëw Dakar. moo ñu euh, taqale wu daara. waaye moo changé méthode bi ñuy deflanteeg daara. comme ni nga xamee ne ñun la ko ñëpp xamee. ci doxalinu daara nga xam ne léegi da ngay am école. wala nga am internat. yooyu ci la ñuy ci la ci la daara toxu léegi ci côté façon boobu. waaye ñu gis ne. Mhm. jàngat bi nga xam ne moo ci am. Mhm. Iblis mu ngi doon préparé pour def attaque ci daara ndax gis na production bi daal di liggéey. Mhm. produit bi produit bi daal di liggéey dafay baax. su ñëwee ci biir bi. Iblis day sonn pour bu ko dévier du ci mën dara. ay accusation rek lay mën ci moom. foo fekk doomu daara buñ buñ attaqué. accusation la ñuy mën ci moom mais pour ne ko. ba détruire ko ba génnee idéologie bi mu amoon. ak pas-pas bi mu amoon. Mm-hmm. Iblis souvent dafay të. Mm-hmm. ci moom. Mm-hmm. pour mu am loolu ci doomu daal donc takkal ko lay man ko le ko motif wala mu wala mu wala mu sosal ko. mais bi mu gisee ne loolu du méthode bi. du système bi ko war a mën a yàq. mu léegi lan lay def mooy day créer daara ci ci koñ yi. léegi nit ñi bu ñu jàng jee école. bu ñu wàccee. ñëw. ca ca ca daara ja mm-hmm. jàng ba gont jot ñu dem jàngi mm-hmm. su samedi dimanche jotee mm-hmm. ñu ñëw këram donc boo xoolee école ba ña fay jàng méthode bi ñuy jàng ak programme bi ku ko tëral waa kër Iblis neexut wax nag waaye man dama ci wax dama koy wax mu leer programme boobu ñuy jàngale comme du l'islam ñu ngi jàngale leneen lu dul l'islam loolu kon égal xeex l'islam Mhm. ndax wax boo koy wax doo ko yërëm waaw léegi nag comme ñooñu nag méthode boobu ñu doon jàngale mhm. léegi créé nañ benn benn espèce de sëriñ daara mhm. boo xam ne moom ay weekend lay jàngale ak ay heure de pause léegi nag ci moment boobu ci la ñuy gaaw profité tëddee xale yi comme saa ñu ne sëriñ daara ba ci koñ bi booba ñu ngi préparé pour jëm ci daara te benn sëriñ daara moo benn ku ci ñi taqal ñooñu kenn ay def kenn ay def ñu mel ni ñëpp ko def ñu mel ñëpp ay def parce que kooku lañuy soxla pour dem attaque moo tax bu ñu def attaque. waaw euh, dañuy rey kenn. Hmm. pour mën a wax na ñëpp mu ngi mel tey xaj bu say rek. wala boo bëggee rey xaj. da ngay koy jiñ ne dafa say. noonu la ñuy def. Hmm. léegi nag méthode boobu ñu doon def. Hmm. seytaane yi ñoom ñu doon créer méthode boobu. léegi nag moo tax waa daara di noppi. ñuy seetaan loolu. muy noppi ñuy seetaan loolu muy noppi ba léegi mu egg ci daara nag. léegi nag paxa plan boobu ñu tëral. moom moo indi léegi ñuy mën a xotxotal daara di tiital doomi daara hmm. léegi nag loolu moom mooy li nga xam ne mooy sama jàngat hmm. doomu daara nag war nañoo toogaat hmm. defaat ay jàngat yu bees yeesalaat seen gis-gis ci àddina yeesalaat seen doxalin ci àddina parce que l'islam méthode bi ñu koy tasaaree ak méthode bi ñu koy sécuriser loolu gis-gis boobu moo indi jàngale daara mais jàngale daara du sunna yonentu def ko saxaaba yi defuñ ko jël benn doomam waaw ko ci benn mu dem di jàngi déedéet saxaaba yi suñu jël seen benn doom waaw yóbbu ko ci benn daara mu dem di jàngi mais kon da ngay gis ne kon du sunna waaw ñu koy def yëpp muy xebaab yi muy ahlu tasawuf waaw ñëpp dañ ko maanaam bidaa la bu ñëpp dëppoo li lay xamal la bidaa la mooy yonent saa salaam moo wax ne nañ tàkku xam-xam. waaw. Hmm? waaw d'accord nañu tàkku xam-xam. Hmm. foofu lañ ko dugal. kon da gis ne kon am nañ ak dégg-dégg. Hmm. bu leen permettre mu mën ak sos ay daara. di ci jàngal seen ay doom. pour mën a tasaare lislaam bi jël alxuraan jox leen ko. méthode la. bu ñu créé. mais du lu ñu royee ci yonentu yàlla moom saa salaam. sallallahu te nag pourtant ñoom booy dem ci ñoom. dañ lay wax ne lu yonent defutoon. waaw yi defuñ ko. waaw duñ ko def. te ñu ngi tabax ay internat. Hmm. mënuñu wax ci kenn kuñ ko royee ndax ci ay ahadis yoo xam ne. yu hmm. ay yu mën a taawil lañ. Hmm. jël pour mën ci di mën a samp daara. donc mu nekk méthode bu rafet comme ni nga xamee ne loolu la ñuy wax bidaa sayyi'a. ak bidaa hasana am nañu ci taa teengal diine teengal ko ba na si ba bidaa hasana sax amul bidaa bidaa <laughs> bu rafet ak bu ñaaw bu ñaaw amul bidaa bidaa rek la. bidaa rek la luñ sos daal luñ sos la. donc ñu ne yonent sànq dafa wax na ku sos lu baax mm-hmm. képp ku ko def mm-hmm. yàlla def la koy fay mm-hmm. ba keroog yom a keer ku ci def lu bon ñu koy roy yàlla def la koy fay ba keroog yom a keer léegi nag ñoom ñu ne lu ba bi daa mooy luy sos ginnaaw yonentu nu ñu ci ñoom te pourtant jàng nii ñuy jàng ah. ak ak euh, daar nga ji ñuy jàng daar di dajale doomi jullit ñi di leen jàngal ut ab oustaz mu leen di jàngal ñu koy fay weer fenn mënuñ koo fi indi ci benn wala mu def ko wala ñu mos ko def ci kanamam mu noppi ca. waaw loolu la yonent mosu ko def. mu ngoog léegi nag. méthode bi nga xamee ne loolu hadis yi ñuy jàng. waaw ci wàll yuy jàngale ne nañ jàngale xam-xam nañ sàkku ci foofu la ñuy génnee dégg. pour mën a indi daara pour mën a taxawal lislaam pour mën koo yaatal foofu la ay dégg-dégg génnee. pour mën a taxawal daara. kon dégg-dégg boobu. waaw bu ñuy lu la. ndax lislaam du diine xam-xam. loolu la gars yi lislaam diine xam-xam la. waaw du diine xam-xam. diine lan la. diine yàlla la. lislaam waaw diine yàlla la. inna diine inda laahi. islam dégg nga inna diine la inda inda xam-xam. déedéet. waaw ah, diine ji diine xam-xam la. te bu yàlla di waxal waaw kat bu yàlla lay waxal. waaw waxut ak xam-xam yi borom xel yi la waxal. yaa ulul albaab. ok afala. taaxiloona. borom xel la wax ko donc xel. lu mu nanguwut. waaw fabal sànni. diine ji diine xel la. diine waaw diine ji. waaw yàlla la. waaw borom xel yi. diine yàlla la. waaw borom xel yi. jàng xewut ci suñ diine ji. kenn lañ jàngaloo mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. nit ñi dañ leen xamal. point final. alquran laa lay wax. waaw. saa ci njëkk njëkk wàcc nu mu tudd. lu ñu ci yàlla wax iqra lan bismi rabbika iqra lan iqra jàngal jàngal sa lan turu borom kon ahlu tasawuf ñoo gañe ñooy jàng asmaa yi hmm. ñooy si saxaata asmaa yi waaw pourtant yàlla iqra la ko bismi rabbika la si xalaqa eh, min xalaqa insaan min alaqin lu ci lu ci wa rabbuka wal akram akram la si allama bil qalam allama bil allama al insaan maalam yàlla kon da gis doomu aadama dañ ko xamal yërun dañ ko jàngaloo kon ñun xam lañ war a def xam te xam la ñuy xaar mais pas jàng léegi nag méthode boobu laa bëgg ñu xam waaw jàngaloo wuñ ñu dañ ñoo xam loo yàlla moo ñu xamal allama xamal naa al insaani nit maa loo xam la lam ya am ko xamu ko yàlla moo xamal nit lu mu xamul ah mais nekk est nekkut dafa am lu mu ko xamal ak loo xam da koy jàngi wala déet. déedéet la nga xam ne daf ko ko xamal. waa ak la nga xam ne daf ko koy gë daf koy gëstu ji. waaw la may gëstu ji mooy la mu ko wax ne wa allamaka. maalam takun maalam takun taalam. wa allamaka xamal naa la. gannaaw bu mu xamee ba pare. waaw dem di utiwaat dollal ci xam. waaw ca lay gisawaate yeneen xam. moo tax nit ki dana toog di poser question ndax nit ki mën naa xam te jàngul. waaw yenn saa yi man mën naa laa jox mën naa laa abbal tegal na ko. parce que xëy na am na kuy seetaan. si ku bëgg a teg question boobu ci sama kanam. pour wax la nit mënta xam lu dul ne dafa jàng. surtout lu ñuy wax intellectuel. voilà lu da ngaa toog si banque. kañ lay jàngi bu pare. sept ans lañ wax bu pare. xale buy jàngi sept ans. waaw xamee na yaay nag bàyyi wala déet. xamee na leen bu baax. xamee na añ réer ndékki wala déet. bu baax xamee na kii kon loolu daf koo jàng wala koo xam. donc daf koo xam. aywa xam la ñuy xaar ci nit ki mais du jàng jàng nag moo tëj xel yi jàng moo freiné nit ñi jàng moo bloqué système yëpp yëpp yëpp jàng moo ko def mais bu ñu tëraloon nit ki ci xam waaw dem ñi nga xam ne moom la yàlla xamal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu dem ca waaw dellu ci muy alquran li yàlla waxal bu boobaa nag nit ki dana taxaw ne waa léegi alxuraan yi moom naka lañu koy xamee. waaw loolu laa te jànguñu loolu laa doon bëgg a laajte. voilà loolu. moom laa lay wax ne nag jàng bi. waaw égal xam. njàng mi. égal xam. ok mais bu ñu jëlee jàng rek xam dañu daal di réer. te xam lañu yàlla def loo. xam lañu yàlla def loo. defal donc nag boo jàng. waaw te jàng bi nga jàng mënoo mënoo cee amee ak xam. waaw mooy jàngloo wuñ la dañ laa xam loo yow. mooy comme suñ mbokk xebaadu rahmaani li ñuy def. waaw dañoo jàng xamuñu. moo tax ñu teg xadis yi nga xam ne mooy bidaa teg ko ci kanam nit ñi kenn mënut a dolli dara ci diine ji kenn mënu cee yokku dara ci gis-gis bu baax ak gis-gis bu rafet te yàlla wax ak borom xel yi te xel di xalaat di indi lum lu mu amutoon di xam lu mu xamutoon yàlla na nit ki maa ko xamal lu mu xamutoon yooyu yëpp dañ koy bloqué dañ ko tëj ko te pourtant njëriñu doomu aadama la kon kooku dafa jàng mais xamut kon kooku jàngaloo wuñ ko mais est-ce que nekkut euh, xelaat yooyu nit ñi di xelaat ci seen xel différencier ko pour xam xel bi ndax li ñu li mu wax rafet na wala rafetul mu dekkul moom moo indi njàng. déedéet njàng yonent lañ ko def loolu. Ah. te tur wi lañ ko jàngaloo. waaw te tur woowu bés dana ñëw danañ ci mës a waxtaan. incha allah ndax wi ñetti lettre rek la. Ah. muy baa. Ah. siin mimar. loolu lañ jàngaloo yonent bi xale buy jàng ci adaara ja. waaw bi ñuy jëm di jàngi. waaw bés boobu la mokkal. bis boobu la wattu mboolem xam-xam. bis bi ñu njëkk jàng xam nga kenn du dem di jàng ñu lay jàngal baax rek. déedéet ku dem dañ leen di jàngal baax. siin mimara voilà képp ku dem di jàng baat siin mimara. waaw loo néew néew xel. loo gàtt gàtt xel loo dof dof. ba bës boobu moom danga nga mokkal alxuraan da nga wattu mboolem lu ñuy jàngale. ci bés bu njëkk bi waaw moo tax ñu bu waxee baax rek ñu baal bàyyi ko. waaw. parce que ñetti baat yooyu. waaw danañ ko mës a jàngale. incha allah danañ mës a am jotaay. léegi nag daara lay ñëw nag. waaw ndax dama bëgg nit ñu xam ne xam. waaw la ñuy ut ci jàng. moo tax ma ne jàngaloo wuñ dañ ñoo xam loo pour ñu comprendre boobu sens bi. sens bi ngay waxee. léegi nag bu nit ki jàngee te li muy jàng mënut cee génnee lu ñuy xamee. waaw wala lu ñuy jëriñoo. maanaam yi lu ñuy xamee. waaw moom jàngaloo wuñ ko dafa war a noppi. borom xam-xam yi de bari na moom. voilà borom jàng yi ngay wax. borom jàngi nii laa. borom borom moo tax borom nag. lii ah. lii mooy problème bi. yow borom jàng yi bi daal dèjà. Hmm. borom xam-xam yi nga indi. te réer gi bëri. waaw jafe-jafe yi bëri. problème yi résoudre mënuñu ko résoudre. waaw euh, solution mënul am. waaw c'est parce que jàngkat yee bëri borom xam-xam yee néew. léegi nag bu ñu itteewoo woon xam. waaw am ay analyses yu pertinentes dañuy am borom xel yi seen xel yi day yëngu parce xel la yàlla waxal borom xel yi la yàlla waxal. donc xel égal xam. dëgg la parce que li ngay wax nii li koy dëggal mooy borom téere yi kawe yi yëpp boo leen xoolee seen jàng soriwul. waaw parce que dañoo jël jàng ba am. xam ba am yoonu ñuy jaar pour dem ci xam. waaw rek ñu def directement ci xam. léegi di jëfandikoo xam moo tax ñuy wax naan diw borom. xam xam. waaw parce que xam lañuy seet mais du jàng. moo tax ñi nga xam ne nag dañoo ittiwoo jàng wut ay diplôme foo leen fekk ñooy gën a am ay problème parce que duñu am benn solution bu ñu mën a indi population bi parce que nekkuñ ci xam ci jàng lañ ne jàng la ñuy course maa am diplôme sàngam maa am diplôme sàngam te boo toogee ki amul benn diplôme su waxee rek nga jàpp sa gémmi gën waa kii nu def ba xam lii te fekkee yow yaa ngi ko gën a ëpp ay dara lii mooy indi confusion yu am dans l'islam parce que ci kat lañ tër lañ tënk nit ñi te l'islam bi boo waxee ñu ne yàlla dafa wax yonent saa sallam iqra hmm. duut lu yow mu la la hmm. yoo xam ne ko jagoo pour moom rek la la hmm. parce que yàlla na la yow sa wàll ca kanam bu fekkoon ba beneen saar sax ñëw waaw mu a wax waaye ci même saar la la yàlla sa position par rapport ak position yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi moom la ñuy wax ne jàngut kon dañ koo weddiloo digalu borom bi jàngale lañ ko wax. aywa léegi jàngut jëm baat boobu dañ ko war a set. nabiyul ummi yu de la. waaw ah, loolu nag mooy mbóot ma nag. nabiyul yu. yàlla na ko. nabiyu ak ah, ummi yu waaw. nabiyu ummi mooy ne dafa la bu. bu bu bu bu jàngut waaw. léegi yàlla na koy lan lu mu ko sant de ko lan. jàngal iqra bismi. léegi nag loolu dama koy bàyyi saa. Eh, eh, eh, te alxuraan de. ñaar yëpp alxuraan la bii dañ la ko jàngal bii ñu ne ko kii jàngut te njëkk jàngal ak jàngut dafa wàcc ndigalu borom bi wala dafa am beneen lan lañ lan moo xew foofu beneen émission lañ koy waxtaanee ndax lii dafa jàll dafa laaj émission spéciale. donc émission tii la. voilà loolu moom te jàng na voilà te jàngaloo nañ ko. voilà te moom ñi jàng yëpp moo uh-huh. jàng ñëpp moo leen jàngal te jàngut te alxuraan wax na ne jàngut. te alxuraan wax na ne ko jàngal ba pare ne jàngut ay loolu jaxasoo loolu nag dañ koy leeral après parce que xam naa su ma su ma xasee laal waaw il ma leeral ko waaw waaw waaw su ma ko naree leeral dañuy bàyyi daara dañuy bàyyi thème bi dem ci leneen voilà dëgg la loolu moo tax hmm. donc nag doomu daara waaw dañ koo jox lu riche loo xam ne mooy mooy mooy la mooy planète bi waaw te plan mboolem planète yi waaw yàlla moom la ko jox doomu daara parce que xam nga lu la koy xamal hmm. mooy ki créer planète yi. waaw créer nit. waaw euh, lettre mu bind. pour nit. mooy schéma bi. waaw yaa di constitution bi. waaw mooy alquran. waaw kooku moo ko xam doomu daara moo ko jàng. ki jàng leneen. leneen la jàng mais jàngul li xew ci àddina bi. kon ki jàng li xew ci àddina bi. Mm-hmm. taxawaayam. Mm-hmm. gis-gisam. Mm-hmm. dimension dafa war a uti ak mboolem dimension yi nga xam ne dafa nekk ci kaw suuf ba tax doomu daara bu ragalee. waaw daf may def problème. doomu daala bu ñàkkee. Mm-hmm. daf def problème. Mm-hmm. doomu daara bu ñu ko gàddoo. Mm-hmm. daf may def problème. doomu daara bu bu dépendre ci nit. daf def problème. doomu daara bu ñaan audience dem vers palais. daf may def problème. waaw te nga xool les intellectuels dix ans souvent di su dix ans les intellectuels soi-disant les intellectuels. waaw ñoom bu ñuy dem vers palais. comme si que ñoom. ñoo ko moom am nañ am wala comme seen kër la ñuy dem. waaw doomu daara bu soxlaa dem pale waaw dafay mel ni étranger buy dem ci ñaan lu moomu. traitement boobu lay am comportement boobu lay am communication boobu lay am loolu yëpp moom noonu lay demee. mais est que nekkul lu ñu orienté ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee intellectuels yi. xalaa jëm. waaw léegi pour xa wax doomu daara mooy kan. waaw d'abord balaa ma koy wax lu mu war a def. dama koy wax yaay kan. moom daa doomu daara moom doomu daara mu xam ne moom. waaw lañ mandaté. dafa piraté mandataire am. c'est lui le mandataire. moom la ñu mandaté. kee dafa piraté si fonction ba pare nag jaar ci xelam diriger ko doomu daara na yàcc. joxe boppam joxe boppam parce que état. waaw mooy lan c'est quoi état. kenn xamul ko état mooy yàlla ak jaam yi ak lislaam bi loolu mooy état yàlla mooy buur bi. waaw Muhammad salaa salaam mooy premier ministre bi. Hmm. les autres prophètes ñooy les ministres. Hmm. état bi mooy population bi mooy jurit ñi war a exécuter l'islam bi l'islam bi moom mooy constitution bi. Hmm. léegi constitution bi nga xam ne moo yore mooy moo concerné population bi. Mm-hmm. mooy la le Coran mooy alquran. Mm-hmm. yàlla ku bind àddina bi. yàlla. ku bind suuf si. yàlla. ku bind alquran. yàlla ku yónni yónent yàlla Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam yàlla sallallahu alayhi wa sallam yàlla. ci kan la ko yónni. ci nit ñëpp. ci nit ñëpp wa maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaas kon est ce que xam nga ne kon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy premier ministre ci mboolem humanité. waaw kan mooy buuru mbindeef yëpp. yàlla rek. président Macky Sall bi buuru réew mi kuy buuram. yàlla tabaaraka kon kuy dëgg-dëgg buur. yàlla li laay waahidul xaar. mooy suñu laaya jëm jàngal ko tawa yàqoon ko. Ah, waaw mooy li ma li ma li ma li ma li ma kay li ma nil mulk yow ma. li laay waahidul xaar. ba xatal aan. waaw yàlla muy buur. gis nga bu baax li ma la wax. bu baax a baax léegi doomu daara nag. moom lañ mandaté moom lañ fal moom lañ dox constitution bi moom noo xam constitution bi nekk ci biir état bi dëgg-dëgg bi état boobu ku ci def njombe wala nga def ci njuumte un jour da nga ñëw taxaw devant la justice. waaw ñu àtte la. waa waaw léegi yow nga war a taxaw war a corriger war a diriger. ngay xoole di xoole di xoole di xoole bañ jaar sa xel taxaw sa xel mi taxaw sa fit wi ba yóbbu sa fit wi ba di la ba di tëj. ci koo xam ne valable ci dara ak garaaw laa ilaha illallah tigi mu ngi mel ni rek ku koo xam ne dafa ubbi benn société société bi amul kayit waaw kon kenn considéré wu ko ci réew mi waaw constitution réew mi prévoir ko waaw kenn soxlawu ko léegi mu ñëw ne moom mooy atte ñi nekk ci état état wu réew mi est-ce que loolu président bi dana ko nangu. déedéet. loolu moo tax doomu daara nag na xam na yeewu léegi damaa bëgg doomu daara nag man moom laay waxal pour mu. yeewu mu xam moom la kan mu ximmaliku bu gisatee ku jàng français na koy ree na xam ne kii c'est un tricheur le vrai tricheur. mooy l'état les les états du du monde. tricheurs yi. waaw ñoom ñooy tricheurs yi. Mm-hmm. ñooy euh, terroristes yi ñooy terroriser nit ñi. i l'islam bi mooy le vrai vrai vrai vrai vrai vrai état mooy la religion musulmane mooy yàlla mooy suñu borom waaw Muhammad mooy suñu yonent mooy premier ministre bi mooy jokkoog yàlla waaw parce que wa anal ala alaalu muxti wa anal xaasim état bi luy ñëw ci état bi ci ministre bi lay jaar premier ministre moom mooy séddale lu mu waxul duñ ko wax mm-hmm. te de bés danañ ñëw ma leeralal état yàlla bi premier ministre yeeg ministre éducation rek ministre de la santé ak ministre yeeg ministères yi benn par benn. Hmm. ba mu leer nit ñi ne état dëgg-dëgg. Hmm. mooy l'islam. dinaa ko wax nit ñi ba mu leer léegi su ko defee nag suñ état yi ñu yor. waaw moo tax mënuñu accepter l'islam parce que bu ñu accepter l'islam. ñoom dañuy fayit dañuy effacé wu. wu. moo tax ñu def laïc. l'état laïque ah. parce bu fekkee état islamique du am sens parce que sariya mooy dox. te bu sariya doxee ñoom du ñu existé bu sariya doxee fu ñuy taxawati ñoom ndax sariya mënut a àtt jël jox leen. te ñoom xamuñ sariya ba ci àtte. déedéet moo tax kon ñoom dañuy disparaître moo tax état laïque moo moo tax duñ ko d' accord. laïcité. lii laïcité loolu moo ko indi parce que bu d' accordee l'islam. waaw moom égal dem na. ah doomu daara laay wax pour mu am fit. wax bu garaaw. voilà pour mu am fit xippi ay bëtam. Mhm. xam na du dof. moom lañ validé. doomu daara légal ba yàlla di digale ne da maa ngi bind jaam boo bind doomu aadama pour mu représenté ma si suuf defaral ma suuf. moom moo dem da moo jàtte yoon woowu. doomu a doomu daara yàlla envoyé ko liir. doomu daara moo xam président bi lan la bëgg. tigi doomu daal waaw moo xam buur bi lu mu bëgg. doomu hmm. daara moo xam li buur bi bañ. te pourtant moo koy wattu. moo koy moytu. moo koy topp. ki nekk ci lees sax bu bëggee am ci xam-xam ci lees ak doomu daara lay oo. waaw waaw bu amee ngénte ku ñu oo doomu daara bu amee dëj ku ñu oo daara bu amee eh, yenn xew-xew yi ku ñu oo doomu daara doomam bu bëggee mu mokkal lislaam bi mu nekk ku ñu oo doomu daara waaw doomu daara kan la mu bëggee ba mu bëggee falu sax doomu daara la doomu daara lay dem mu ñaanal ko yàlla ko mu falu ba pare mu wëlbati quoi doomu daara nanga waat di sa gàtt kanam naan ko monsieur nangam nangam monsieur nangam nangam sax dafay arrêté lu ko def war a jeex respect cent pour cent vers les daara waaw man maa ko wax àggaguma ci lu tax ma wax loolu. dëgg la danañ ci egg. incha allah. donc doomu daara. xëppi bëtam xool. tigi bu mu bu mu raay doq. waaw parce que parce que li ngay wax nii. li nga wax nii dafa nekk maanaam benn feebar bu garaaw a garaaw garaaw bu nekk entre doomu daara. ak ak ak ak les. Euh, li ñuy tuddee les. état ak les intellectuels. waaw voilà xam nga état intellectuel ça fait deux. waaw état mooy ki nga xam ne intellectuel mën na bañ a nekk euh, mën na a de l' état. waaw waaw. waaw mais euh, membre de l' état ak intellectuel ñoom ñëpp dañoo lëkkaloo. contre contre contre daara parce que avec les les autres systèmes yi nga xam ne leen di alimenter. mais loolu ana lan moo indi lu mel noonu. parce que ñooñu seen existence pour mu nekk il faut daara jóge fi bu daara taxawee ñu taxaw. waaw nekk en menace. parce que dañuy ragal un jour daara jël pouvoir bi bu daara jëlee pouvoir bi égal ñoom disparaître. parce gis nañ ne même doomu daara sax bu posé candidat pour jéem dugg ci seen biir. dañ ko nga dama nga dem. waaw waaw yow sëriñ nga. sëriñ ko génnee rejeté ko ah, ci loolu mooy seen mais est-ce que nekku tamit doomu daara aussi ci boppam moom it dafa joxe boppam. déedéet ba tax buñ ne ko yow sëriñ nga mu commencé. nga sol yére yi nga de yëkkati ay yëkkati ay kii. man doomu diw laa wala doomu kii laa ne mën naa toog ñi ñëw di ma indil addiya may kii te ñëw. ñi nga xam ne ñoom ñooy intellectuels yi ñoom ñooy dem di liggéey ñoom ñooy dem di fexe di créer ay affaire ñoom ñi daw àddina bi nga xam ne yàllaa ñu ko jox pour mu nekk benn jaam comme ni ngay wax ci biir waxtaan yi te yonentu wax ko sallallahu alayhi defar benn jaam mu dugg ci lislaam euh, moo gën li jant bi di xëy di tiim ba fu ba fu ba fu jant bi so mm. te suuf si àddina bi nekk ni benn jaam la si jaami yàlla yooyu te doomu daara war a bokk si ñu ko defar mais ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy les intellectuels mm. ñoom ñooy jug di defar mm. lii war a doomu daara waroon def ñoom ñooy jub di ko def mm. loolu tamit est-ce que bokk ci li tax ñoom ñi nangu li nga xam ne moom la doomu daara waroon a doxal wala ah, déet léegi nag xam nga loolu mooy lan waaw dañoo teg ñaari mbir wax ak jëf waaw doomu daara jël wax ñoom ñu dem jël jëf ñu jël jël jël jëf jël jëf loolu moo tax ñu mën a am pouvoir ci kaw doomu daara pourtant doomu daara moom moom wax ak jëf ndax moom lañ wax lan lañu war a def. dëgg la. moom lañ wax lu ñu war a def. waaw léegi nag intellectuel bi nag moom mooy dem di exécuter mooy tabax mooy tabax tali da ngaa gisagum fii benn sànc boo xam tali la ñu ne doomu daara ko di dirige. dégguma ko de. boobu ba la amee bëriwul. wala moo ko financé. wala moo ko financé waaw. dégguma ko donc loolu mooy problème bi. problème bi mooy gaa ñuy góorgóorlu nag. waaw bu ba ñoom ko waaw doomu daal te doomu daara yi at dafa ndànk économie réew mi bu dee cent la. waaw quatre-vingt pour cent yi doomu daara ñoo ko yore mais problème bi mooy ñoom mat intellectuel yi matuñu sax quinze pour cent matuñu sax dix pour cent mais dafa am ay systèmes yoo xam ne ñoom ñoo nënk réew mi loolu dañ ko war a wane wane ko mu leer ñu xam ne réew mi c'est pour les musulmans. Hmm. léegi li la koy xamal. waaw mooy état. waaw. un boo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent musulmans. waaw léegi mënuñu d'accord. Mm-hmm. ci ne l'islam mooy seen diine ñu nangu l'islam bi jëfee ko. nga xam ne am na benn secret bu bu bu téelu. bu téelu bu ne ci suuf. voilà loolu bu bu may leeral. waaw affaire chef d'état yi. waaw fa laa koy dugalaale. mais actuellement ci daara yi lañ ne. waaw léegi daara. waaw laa bëgg mu xam ne. waaw coonam jeex na. coono daara waaw. waaw coono daara jeex na. waaw parce que dafa am ñuy tiital daara. Hmm. di leen xeex. Hmm. léegi ñuy tiital daala di leen xeex. Hmm. des fois mu jugee ci senegal des fois mu jugee fu gën a sori Sénégal. ba nga xam ne ñoom ci seen jëmmi bopp. dañuy dem ba ci bopp ba ci mujj gi. dañuy mujj def ay marche di jooy. ne sëriñ daara diw sàngam ñu ngi koy tëj. sëriñ daara diw ñu ngi koy def lii wala ñu ngi koy def laa. ba ñu gis ne joxe nañ ndigal. ba jàpp nañ sëriñ daara ba hmm. tëj nañ ko hmm. ñu ne léegi xale bi kenn waru ko dóor hmm. xale bi kenn waru ko gaañ xale bi kenn waru koo def lii xale bi kenn waru ko def laa lépp du xale bi mais xale bi euh, problème bi mooy fañ ko dugal ak la jàng parce que yaa ngi doon point boobu da ko cof rek après jàll waaw ci point bi nga xam ne si la Euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy noonu daara hmm. ci lañ tegee seen seen seen programme pour hmm. xeexee ko daara hmm. ci maanaam porte garage yooyu nga xam ne fii lañ daan def seen daara yi mel ni daara la te fekk na ñi ngi préparé pour xeexi daara pour jëm ci daara pour jëm ci daara jëm ci doomu daara yaa ngi doon wax si point boobu mais da nga ko cof waaw loolu laay eh, eh, loolu expliqué naa ko leer na waaw mooy attaque laa doon waxee rek attaque bi fu mu déparé waaw ndax guerre boo gis waaw dañuy fexe ñaari nit saagante dóorante waaw juróomi nit ñëw bokk ci waaw juróom-ñaari nit ñëw dollee ko waaw fukk ñaw ñaar fukk ak ñaar ñëw dollee ko waaw ñu médiatiser ko waaw ay état dugg ci foofu la départ wala waaw voilà léegi nag loolu système boobu la defoon ci dara léegi gis nañ ne tëj nañ gaa yi waaw amul suite waaw gaa yi kenn xamul fuñu dëkk waaw benn waay bu ñëw ci quartier bi la rek am benn pantre waaw ubbi benn garage luyee ko daj dajale xale ñu jàng midi 14 heures ak samedi dimanche. waaw violé na xale ba yóbbu nañ ko kaso après jeex na waaye kenn xamul fu mu bokk kenn xamul fu mu dëkk. doo wóolu dugg doxaat ci mbedd yi ba ne paa ba léegi moom moo violé woon sët sàngam wala deux doom sàngam. dee man gisaguma ko. doo ko gis. déggagum gisaguma ko déggaguma ko. doo ko dégg. waaw parce que loolu programme boo xam ne dañ ko étudier mu am ànd ak seytaane parce que seytaane nag dafa ndànk am na ay am yoo xam ne mën nañ soppeeku nit. ba pare delluwaat nekkaat seytaane mën nañ ñoom dañuy def loolu man xam naa xam naa leen. waaw loolu beneen domaine la. yaa ngi dégg. waaw léegi nag ñooñu. waaw ñoom ñoo doon préparé pour attaquer daara. waa daara nag ñoom ñu ngi jàngale rek xamuñ dara. tey boo jëlee tey boo sëriñ daara boo boo ko Dakar ville. waaw xam lu xew du xam ndax lu xew boo ko laajoon tey lan moo xew. waaw mais tamit est-ce que nekkul tëju boobu nga xam ne tëju nañ ko. duñ concentré wu ci kii concentré wu ci daara yi. waaw léegi loolu li mooy jàng jàngale moo seen wàll jàng jàngale mooy seen wàll. léegi fi na nii loo leen gis ñu def ko comme métier. Hmm. rek nga gis gaa yi commencé def média di ko saboté. léegi jàngaleetuñ léegi kiyeetuñ ñu ngi topp àddina bi. ñu ngi def li ñu ngi def daal ñu ngi def médiatiser ko pour bëgg rek tout le ñu leen di ñu leen di denc rek. léegi doomu daara nag moo war a bind ci ginnaaw doxam. waaw je m'en léegi xam nga lan nga war a def. waaw seet sariya mu la digal. waaw ak ak na lu la sant. rek nga def ko moytu melam yàlla. ak melam yonent bi tout court léegi nag ku la wax leneen bu ko lijjanti. yow yàlla yàlla na la intéressé ak yonent bi yonent bi après nga dem liggéey nag. waaw góorgóorlu nag. Mm-hmm. parce que avancement am na. waaw. Euh, am na lu ñu jot am. waaw commerce bi ñoo ko téye doomi daara yi. waaw ñoo ko téye. waaw les quelques industries yu am doole yi nekk ci réew mi. waaw doomu daara yoo ko téye. waaw léegi des na nag ñu dox doxale doxalinu daara parce que da ngay gis ñoom ñoom. dañuy dem vers les. vers les vers les intellectuels. waaw bu ñuy solu sax léegi nga gis ay costume la ñuy sol. waaw ay xaftaan léegi rarement lañ koy sol. waaw am nañ complexe bi sax. voilà léegi bu ñuy wax. waaw arabe bi dañ koy dëgg. duñ ko nangoo wax. fësal fësal. waaw alxuraan bi duñ ko nangoo fësal. waaw bi la ñuy gën a nangoo wane. pour wane ne ñoom dégg nañ français. waaw comme man ni may def. waaw li may wax dugal ay mots français pour wane ne jàng naa français. waaw dégg naa français affaire yooyu. voilà mais man dama koy damay su may wax français. waaw damay préféré di def ay fautes yu rëy. waaw pour ñu xam ne jànguma ko. man dama ci ciy jàngalaale ci communication bi ci façon bi mën naa wax olof sans français. parce que man mën naa ko man mën naa wax wax émission wolof ba mu jeex. te benn français baat français du ci dugg mën naa ko. dëgg la mais man maay def di wax. waa di def ay faute di wane na jànguma ko. Ah, parce que bu njëkk am na benn jamono waa boo waxaan français ba def faute. voilà dañ lay reetaan. dañ lay ree. voilà loolu nag su bëree. waa nit bu defee faute. waaw dootuñ ko ree danañ ko bàyyi yoo xam ne du am waaw du diinaam. Mm-hmm. làkk bu mu làkk bu mu nàmp la rek la làkk bu mu jàngale rek. dégg la mais ñoom dañuy sécuriser seen système bi. waaw jàngale bi. waaw sévère ci ba nga xam ne. waaw soo ci juumee. waaw dañ lay sanctionné wala ñu mere la wala ñu reetaan la ba nga xam ne doo ci ñemee juum olof bi nga nàmp yow. waaw soo waxee euh, boo boo waxee li nga xam ne mooy olof bi. waaw wala làkk bi nga làkk. waaw boo ci juumee. kenn du ci kenn du la ci wax dara. donc daara. doomu daara. Mm-hmm. dafa war a xam ne moom moom moom réew mi moom moom àddina bi. Mm-hmm. loolu daf ko daf ko war a xam. beneen bi ci topp mooy. Mm-hmm. gis naa ay kuréel yoo xam ne dañoo lëkkaloo mhm. ne dañuy dimbale daara ba ku xeexati daara mhm. ñu jóg ànd jàppoo nekk benn mhm. pour dimbale kooku ñuy xeex gis naa leen dama leen suivre bu baax gis naa seen taxawaay am na ci ñenn ñoo xam ne ñu baax lañ am na ci ñoo xam ne ay saay-saay lañ ci biir kuréel gi ci biir kuréel yi waaw ah ci biir kuréel kuréel yi waaw waaw yaa ngi loolu même ci daara yi am na ci ay daara yoo xam ne hmm. daara seyatiin yi la hmm. waaw buñ bëggee tëj buñ bëggee dóor buñ bëggee def tooxi doona buñ bëggee def loolu foofu la ñuy aw moo tax du kuñ torturé rek ñëpp jóg rek dem jàppale ko hmm. damay bàyyi la vi dama leen di def la dama leen di vigile dama leen di wax pour ñu vigilant du sëriñ daara buñ gis rek mu def njombe rek ñu gëmm rek ne daara lañ la rek dem dañoo war a xam ci biir lu lu ca ne. Eh, biir kay moom du est-ce que ñëpp mën nañ fa dugg. waaw loolu moo tax nag man ma ñëw pour wax leen. Eh, la nga eh. ci biir. waaw. ndax doomu daara. waaw égal baatin. Mm-hmm. l'islam égal baatin. l'islam égal xam-xam l'islam égal xam. l'islam mm-hmm. égal ñaan. Mm-hmm. l'islam égal dogu. l'islam égal jëf. loolu laa bëgg ñu delloo si waat l'islam et dur. nga xam ne ku bokkut ci lislaam du ñeme lislaam du ñeme doomu lislaam waaw ah, loolu de moo amoon bu njëkk loolu mooy dellu suwaat waaw hmm. ah, man dinaa fexe ba ñi ma gis ñu dëggu hmm. ci doomi lislaam yi hmm. dinaa leen dolli doole ci biir ba nga xam ne ku leen laal dootoo ko dolli comme li amoon comme li amoon ñoom ñu ñu xam ne man la ak ñu ñàkk xam ne man la yëpp ça importe peu parce que man lislaam moo intéressé Mhm. beneen bi ci topp mooy mhm. damay wax ci àddina lépp ñu dégg ma ci Sénégal kenn mhm. l'islam bi kenn dootu ko laal maa ngi dund non ku ko defati dootoo ko dolli daara kenn dootu ko laal à partir de waaw ku ko laalati dootoo ko dolli waaw képp koo xam ne nag doomu daara nga na nga xam ne soo sampee daara. Hmm. na nga ci vigilant bu baax. nga bàyyi ko xel bàyyi ci xel. Hmm. toppatoo ko. Hmm. soo ko tijjee wàcc ko foofu. ña nga fa fal ña fa bàyyi. dem di def ay lubiñ. di ka ñeneen ay affaire pour ñu takkal daara. am naa pouvoir mën ko vérifie ku ci xam. ne lii mbu kompolo la. danaa fa rëkk sa ndigg. dinaa jëflante ak yow. Hmm. ñi nga xam ne nag ñoom ñun ak ñoom ñoo bokk réew mi hmm. ñu fal leen ñun hmm. ñu ne tuddee seen bopp ay pouvoir dégg nga moom bi pouvoir waaw pouvoir lan exécutif exécutif pouvoir législatif pouvoir judiciaire ah. pouvoir bari na kay voilà lu tax tuddee wuñu mbir mi réew mi ndax ñu tuddee ko pouvoir parce que am na kuñ wéeru koo ne moom ci lañ wéeru kooku ci kooku lañu wéeru pouvoir kooku moo leen may doole bi man am naa sens am pouvoir am accès ca pouvoir yooyu waaw pouvoir yooyu ñu wax pouvoir pouvoir pouvoir pouvoir waaw am naa pouvoir xam seen pouvoir ak accès si seen pouvoir comme boo koy faram-fàccee mooy la mag ñi amoon tey bu fekkee da nga nekk ne danga nga da nga am ndomba tànk boo am waaw nga jàpp benn doomu kilifa ci réew mi waaw te booba fekk kooku sëriñ la waa nga laal ko waaw <laughs> daan na daan nga gis nuñ la daan def bu njëkk waaw dañ lay rëq sa ndigg ci ah, saa si ñu wàccee la waaw da nga nga nekk leneen kay waaye loolu dootoo ko waxate yow loolu pouvoir contre pouvoir la woon euh. pour faram fàcce bi ngay laajte waaw mu ngi noonu dëgg la ñu xamul mën a xam ñu mën a xamul mën a xam waaw voilà léegi nag képp ku ci def ku ci laa laalati daara waaw xam nga gars yi dañuy toog di marché doomu daara di marché wut gàcce la ba bëggoon naa ko laaj. ci gàcce la man damay ruus su ma ko gisee ñuy marché. ba imaam yi njëkkee def marché. marché dañ leen doon ree. imaam daf imaam gàcce la imaam sax garaawul. parce que imaam da dem jàngi pour jite nit ñi. waaw daara doomu daara. égal xam-xam égal baatin égal secret égal nangam égal nangam. parce que alxuraan nga jëfandanteel alxuraan nga yore sa benn alxuraan rek sa benn jukki alxuraan wér rek boo toogee jàkkaarloo yàlla jàng ko loolu dafa dellu si pour ma dolliwaat waa kër daara yaakaar kana léegi bu leen tiitati bu leen jàqati mhm. bu leen ragalati bu leen gaañ benn xale bu leen torturé benn xale jàngale leen tranquillement mhm. kenn kuy nekk ci ginnaaw kenn du may kenn doole muy jaay keneen doole jeex na fi doole ji daal benn yàlla. benn benn doole la mu yàlla benn doole yàlla benn doole la muy doole yàlla seen fini. ak koo mën a doon nag koo mën a yaakaar ak ku la mën a ngemb. waaw maa ko wax man Cheikh Omar Diop. dëgg la. l'islam bi dañ ko war a protéger l'islam bi dañ koo war a sécuriser gannaaw bu ko yàlla ak yonentam sécuriser liñ koy xeex xeex terewul mu ngi dem fi mu bëgg a egg moom kay mi ngi dox mais keneen à partir d'aujourd'hui waaw man Cheikh Omar Diop mayatuma kenn muy torturer jàngalekat yi daara. ak daara ak daara. léegi daara moom ci ban anam la war a doxee. anam bi mu la doxee mooy ah, mais dégg nañ ci biir wax ji nga wax ci euh, kuréel yoo nga xam ne dañuy taxaw pour xeex daara. pour pour pour xeex daara pour. pour pour pour pour euh, xeex ñi xeex daara. waaw pour jàppale ñi jàppale jàppale daara jàppale daara. Mm. dimbale daara. Mm. Euh, ci biir wax ji wax nga ci ne am na ñoo xam ne ci biir kuréel yooyu. Mm. am na ñoo xam dañuy créer kuréel yu mel noonu. nga defee ne dañuy xeexal daara fekk na dañuy xeex daara te ñu ngi mel ni comme kuréel yooyu. yooyu man mën naa leen détecté mën naa jëflante ñoom mën naa leen tasaare. waa mën naa leen fayitloo mën naa leen fay te Samba Demba du ci bokk loolu sama liggéey la man maa koy def. Ah. mais xam nga daal ñi si nekk ci dëgg. ak ñi si nekk ak ñi si nekk ci léegi daara yi nga xam ne samp nañ ko te fekk na ne noonab yàlla bi moom mooy ki ka samp. loolu mën naa mën naa am naa ci am naa euh, pexe. mën a fexe. ba mu tegu ci dëgg. waa ñu jàng ci dëgg. saay-saay ya fa nekk di doon doon def seen pexe. waa ma récu ma récupéré leen ñoom ñëpp. waaw yaa ngi dégg. waaw daara ñu continuer nekk daara. loolu loolu li ma lay wax ne dama la bëgg a wax doomu daara. waaw mooy kan. parce que doomu daara kenn mësu ko yëpp. mës sa am. voilà loolu laa wax ci njëlbéen gën la bukki bu yabee yoo xam maa wala lii taxoon ma koy wax. léegi doomu daara yi nañ jàngale. mais léegi naka la ñuy def ñoom doomu daara. ba mën a jël li nga xam ne moom la yàlla moom te dénk leen ko. ñun doomu daal loolu sama liggéey la. maa ah. sant ma nañ jàngale rek. maanaam bi maanaam euh, euh, xam nga boo xoolee ñi nga xam ne ñoom ñooy les intellectuels yi nekk ci àddina bi walla ci Sénégal nga xam ne ñoom dem nañ ba mel ni ñoom ñoo moom àddina bi téye ko ba doomu daara bu bëggee dara sax il faut mu ut intermédiaire ci ñoom pour ñu mën a jot loolu. loolu laa la wax day dañ. day dañ. incha allah loolu respect bu amee. waaw considération bi am. waaw par la force. waaw nii A boo demee ci bureau wala nga dem ci dem war a toppatoo dara danañ la ko defal parce que dañu xam ne yow am nga kilifa. mais bu boobaa dana dem ba léegi ci intellectuel jaaraat ba léegi. déedéet mën nañoo dem sax man am na programme. boo xam ne benn vision la. waaw boo xam ne incha allah. su ma li ma bëgg su ma ko su ma ko amee ba pare. incha allah li may tërali. waaw mooy li may tërali. waaw yow foofu bàyyi xel li may wax de. li may tërali. waaw mooy doomu sénégalais bu juddooti. waaw da ngay jàng 15 ans soog a dugg ci beneen méthode booy jàngee. alxuraan ngay jàng ak sunna ak fiqh jàng sa diine ba mokk ba ñor. waaw yaa ngi dégg 15 ans ba 15 ans. waaw nga ñor xongu. waaw tari alxuraan. def lépp. waaw yaa ngi jàng a jàng lépp ba xam sa diine ba mu pare. nga soog a jàng ji beneen méthode beneen méthode booy jàngale ji pour pour mën a wéy ut doo dundee. parce que indiwuñu ci àddina bi pour lekk ak naan ak ay métier dañoo indi ci àddina bi pour jaamu yàlla. léegi dañu xam lu ñu koy jaamoo ba pare. waaw xam nu ñuy sàmmee suñu diine ba pare. waaw léegi soo ko uti lu ñu utee lu ñuy lekk. loolu moo tax loolu moo tax yàlla def ñu euh, il nga am 18 ans. pour ñu togg la jëf. Ah. parce que léegi année yi ci des pour nga jàngalaat pour ñu former la pour ñu tàggat la est-ce que nit ñi mës nañoo xam voilà léegi nag 18 ans bi boo gisee yàlla may ko daf lay bàyyi ci sa liberté. pour ñu jàngal la yar la tàggat la ba nga ñor. ñu soog laa commencé togg ay jëf fekk nga responsable nag. fekk jàng nga ba am xam-xam ñu soo ko at indi ay atte ci yow gars yi nax ñu defee ñu léegi nag soo ñëwee 18 ans bi lu tax fii moo ko waral. déedéet man de maa a xam ne li may wax lu ma xam la. boo paree na doog a dem. uti métier parce que li a ah, lay mën a xam loo sa diine da ko xam. li lay mën a wattu loo sa àddina da nga ko xam. sa pare nag nga seet ci beneen métier bi la neex nga dem jàng ko pour mën a wéyal sa dund dootoo ñaan doo yalwaan doo sàcc doo fen léegi nooy def ci daneen ko boole ci biir waxtaan bi ndax da caa dugg mooy euh, yalwaan bu bari bi am ci àddina bi. ci Sénégal ñàkk la rek ñàkk réew mi réew mi ñàkk ak orienté bi orienté alal réew mi. waaw ci yeneen yeneen voies yu bokkul ak population bi. mais dañ ko jañax daara. dañ ko dañ ko corriger. Ah. dana am. affaire bu garaaw dana am liggéey la boo xam ne liggéey bu yaatu la ci biir lañ koy defee loolu du liggéey biti. macha allah alalu réew mi nga xam ne ku falu rek jël def si sa gafaka. waaw boo paree ku falu rek jël def si sa kees. waaw gaa nañu commencé wax de. fa ma fa ma aw ak ñoom bañuy wax. Ah. du ma ko wax ci kaw nañ xaar ba ci kanam rek. léegi ku ñu falati ci salaire rek nga yem bu yàggee ba ci kanam. tuuti ku ñu falati nga a ministre nga nekk leneen. waaw ci sa salaire nga yem. luñ la joxati pour réew mi da nga ko jox nga ne ko jëluma. déet loolu bu boobaa du baax ci réew mi di. ku la jox leneen loo xam ne du sa alal. waaw nga ne ko jëluma bu ñu la joxee alal réew mi moom da nga ko awale ci yoon ah loolu de bu amee moom parce que boobaa dinaa dinaa am kuy toog di la nii xam nga nii ah? waaw waaw nii waaw ah? di nga def normal ah <laughs> yow de li ngay wax nii bëgg ñu xam ne Sénégal dafay tegu ci yoon bi du question boo nekkee buur rek wala boo nekkee état rek ci ko tout faire non dafa am lu nekk sa ginnaaw lu la hmm. may doole boobu la nekk sa ginnaaw am na lu nekk sa ginnaawam muy suñu borom Ah. kooku nag dañ koy delloo si ci biir activité yi ci biir sis mbiri ci biir nit ñi ñu xam ne mu ngi ak ñun parce que tolérance bi amoon laa arrêté. dëgg la. ah daara moom nañ xam ne am nañ ku leen xeexal. am nañ ku leen jàppale. alhamdulilah nañ xam ne li fi nekkoon amatul muñ. Mm-hmm. non. ay mun nii nañu xaar ba état bi jóge fii. wala yàlla dàngam lii dàngam laa non non ay yàlla baax naa nañ ko muñ peut-être non non loolu ñàkk solution la. waaw ah, yàlla baax na koy wax rek. ñàkk solution la yàlla day day yàlla jox baax na moom baax na yàlla jox na lépp. ba mu baaxee yàgg na. fal folli nit ak nguur. waaw kaasu naa kaasu ndox ak naan ko moo ko gën a jafe. yëkkati kaas bi naan. waaw moo gën a jafe loolu te buñ bu ñu yëngatoo. waaw ma wane ko. ma wane ni ñuy follee nit ak nguur nga xam ne jaaykati cax bi sax su rombatee nit kuy liggéey ci nguur. waaw su ko xoolee xol bu ko neexul sax mu mu mu wàcce ko. waaw puisque man moom seetlu naa benn mbir si Sénégal wala si àddina sax laay wax. Hmm. wala sax si Sénégal ndax Sénégal laa hmm. euh, koy fal ne ko am ma dénk la. mu mel nii moom moo parce que ñun ñoo koy def ñun ñëpp mbindaanu réew mi lañ. wallaay waaw ba ba si suuf. waaw mbindaanu population bi lañ. mais day mel ni. loolu dañ ko war a wax dafa war a leer. waaw mais war a xam ne ñun ñoom ñëpp suñu ay mbindaan lañ. dëgg ñoo leen fal ñoo leen di liggéey loo ñoo leen di fay. après ñu wóobitu ku nekkaat seen ay jaam. ñun ñoo leen ko may. parce que amuñu baatin. gaa yi amuñu baatin moo tax ñu ñeme leen. dëgg la doomu daara kontaan na. borom doomu daara laay wax. waaw na jàngale. na jub na dëggu na liggéey na am xaalis. bu mu yaakaar ku yàlla na dem defi loolu ñi nekk ci daara yi nañ jàng nañ jàngale nañ jub nañ jubal nañ yërëm xale yi jàngal nañ leen toppatoo xam ne am na vigilance bu am ci seen biir li may wax man Cheikh Omar Diop maa yor parole bi di ko wax waaye li ma lay di wax surveillance cent pour cent lay àndal du nekk waxi kese du waxee nekk waxi kese de que mën naa ko de dëgg la de waxi kese de te li ma leen di wax nañ ko bàyyi xel changement cent pour cent mille pour cent dana am ci réew mi muy musique bi muy boit yi muy caga yi muy jaayi drogue bi muy euh, euh, euh, politiciens yi ñëpp danaa leen corriger A ba Z ñëpp ay def nii. yàlla dirigé. waaw yàlla nekk buur. <laughs> yàlla nekk buur l'islam dirigé. waaw si ndigalal yàlla. xam nga président de la république Macky Sall. waaw. tey fi mu nii lu ko neexoon ci réew mi daal boo ma xëy na dañ di tëddi ñëpp tëddiwuñ. waaw li ko ko may du ñun. waaw ñun de ñoo ko def. waaw léegi léegi ku ko yàlla may nag. ah boobaa moom kenn warul xaar. Ah, eh, ku yàlla may loolu xam nga ñun ñoo dajale rek jox ko loolu. waaw suñu doole moo ko may loolu. waaw ay doole yàlla nag. doole yàlla moom day xemut ak lenn. day jeex na. doomu daara kontaan na. doomu daara léegi sa laaj ci daa leer na. daara leer na nañ jàng nañ jàngale dañu xam ne léegi mbir mi solution bi. waaw nekkul marché doomu daara du marché bu leen marché ci daa marché gàcce la. gàcce la bu rëy bu leen marché bu leen marché ñaan leen yàlla yéen moo seen xarit. waaw. yàlla mooy seen ndimbal waaw yàlla mooy seen delluwaay yàlla mooy seen wéeruwaay hmm. bu ngeen ko ñaanee sax li ngeen ñaan gisu leen ko sax muñ leen ko hmm. mu ànd ak yéen demee ci asmaawul husna yi muñ mooy baat bu mujj ba day fexe yëpp de dañ koy def ba mu jeex ñu soog koo wéeru tur yëpp ay jeex mu soog wàcc parce que yàlla lay wan ne mooy mujj il faut nga def effort ba jeexal takk nga soog a dem toog ca baat muñ su ko defee rek mu ñëw teew dëgg la boo defee nag nga xam ne muñ nga xam ne beneen baat teguwu ci waaw gannaaw yàlla nga cay teg loolu danaa leeralal nit ñi asmaul husna yi ñu wax ne mooy turu yàlla yi du turu yàlla yi danaa mas a waxal nit ñi lu tax ma ne allaahu du yàlla waaw bis wax nga ne loolu de xam naa ne ñun ñëpp danañ ko yàgg doomu daara yëpp dana soxla surtout su ko defee ñu mën a am accès ci yàlla mhm. yàlla soriwut la moo ko nëbb ak saytaane saay-saay bi nëbbu ko sax parce que nit ñi la gëlëmal seen. nit ñi la gëlëmal rek mais yàlla moom dara nëbbu ko. déedéet moo gën a feeñ lu feeñ. kon alhamdulilah waa doomu daara yi déglu nañu wax ji ñun doomu daara yi laay wax déglu nañu wax ji te dégg nañ ko te am nañ ci contentement bu rëy mm. ndax lu tax mm. ñë jam ba ci jamono ba ci tey jii nii ñu tàmbali émission bi ci gën ba ci gannaaw mm. ñëpp jaaxale woon nañ ci daara. ndax mi ngi doon jë ñi ngi ko pare presque gañe woon nañ ko. pour jëlee ko ci àddina bi. te li may wax ma doon ci leneen. waaw. benn action benn xeex. waaw buñ ko xeexee daara. waaw njàngam tubaab. ci Sénégal. waaw dootu fa amati. ah waaw dootu fa amati. ah système njàng français. waaw dama koy éliminer. Eh, loolu garaaw na de. Mm, man àgg naa ci yàlla. ak ndigal waaw bëgg rek su ma ko defee ñu def bëgg rek ma sax ñu wax ko wala ma jëf ko waaw bëgg rek su ma bëggee rek mu am mais ñaanal leen ñoom tamit moom maa dama leen di mettre en garde waaw ñoom ñu ñu orienté wu ba def te loolu dafay jógee après sax waaw parce que du suñu langue sax d'ailleurs non du suñu mbir la waxal lu a day dëñ parce que buñ demee ci affaire nguuri fi foofu laa koy leeral wax ju ne dafa am insha allah doomu daara kontaan nañ sant nañ yàlla ndax gis nañ ku leen défendre ci doole ci kàttanal yàlla gis nañ ku leen défendre kon ñi nga xam ne ñoom ñoo samp kuréel yi gis gis nañ ku leen défendral ku leen défendral <laughs> ku leen di défendral waaw ku leen di défendral ku leen di làkk bi dafay am solo parce que booy wax tamit ñi dégg bu ñu déggoo li nga wax waaw dañuy yaakaar leneen nga wax mooy fët ko man du ma do man du ma jàng moo tax may def pour xam ne lii du suñu làkk tigi ñun daara lañ jàng pour naturel complexe ba am ndax may làkk français boo defee erreur bul ko bu mu la yàqal dara continuer sa wax. voilà l'essentiel daal waxal li ko complexe bu amul rek. waaw foo bëgg egg dañ fa egg. dëgg la dëgg la kon waa ñi nga xam ne ñoom ñoo samp kuréel yooyu nga xam ne ñoom ñoo dañ ko samp pour dimbalee ko daara delloo siwaat daara ak défendre daara ba nga xam ne kenn dootul ko laalati kon naa maa ngi leen di wax ne. nañ jàpp am ngeen leen ci gannaaw yàlla waaw ñu seen kurus. waaw nañ jàpp seen ay jukki waaw. di ñaan. waaw. ñu amee soxla nañ ko ñaan yàlla. waaw ubbiwaat na bunt yi. alhamdulilah ñaan naa yàlla man ba yàlla nangul ma ne d' accord la ubbiwaat bunt yi parce que loolu moo taxoon doomi daara bu ñaan daa ñu gis. Ah. loolu moo taxoon ñu daan def ay mas dafa am lu ko waraloon dafa am lu taxoon ñu tëj bunt yi. alhamdulilah rabbil alamin moo tax léegi nañ di ñaan. waaw ku ci dëggu sellal. waaw boo ñaanee rek ku la tooñ dina ko gis saasi. parce que lan lay dóor waaja. waaw <laughs> ñoom xam nañ man nee naa ndigal ba pare. alhamdulilah da ko gis na xam ne li may wax du waxi caaxaan de. bu yaakaar na man naa ñëw ci yow sa kër di fëgg dëgg di wax ak lay ñëw daal moom la toog di xaar dégg nañ. te gis na lépp te topp naa waataana. waaw dëgg la. moo tax doomi daara na jàng. waaw na sellal na jub. da nga ñu lay contrôler sa kanam de. kon lépp a ngi noonu boo jubut nag. yaa waaw boobaa liy lijjanti moom mi ngi taxaw di xaar te jëf rek lay xaar. alhamdulilah ña ñuy dem ci beneen point bi. Mm. muy muy muy lu jëm ci wàllu état. Mm. ak population bi. Mm. muy doomu réew mi. gis nañ ne saa su ne mu ngi métti. te saa su ne day gën a métti. te tout le temps ñi ngi def ay changement mais terewut ba léegi lañ daan gis la ñuy gis. loolu la ñu bëggoon xam lan moo waral loolu. waaw loolu dafa xóot mm-hmm. te dafa yàgg mm-hmm. parce que euh, mbir mm-hmm. su amee nga koy faj mu tëwér da ngay fexe xam feebar bi ban feebar la ndax garab bi ngay joxe est garabam la tijji ndax man ci domaine faj laa nekk di ci waaw am na ci feebar yoo xam ne boo ci joxee garab boo xam ne du garabam waaw non seulement feebar bi du wér mais da nga koy yokk yaa ngi dégg. Mm-hmm. te di nga mettre nit ki en danger mën na nekk en mën na nekk sax ba ba mën na ci jaaree ñàkk ba kanam. Mm-hmm. donc état yi nga xam ne moo fiy nekk. Mm-hmm. yàgg fii ñu koy changé. population bi. ñu ngi def seen ay devoir. mais état. boo gisee yeneen état yi. boo gisee boo gisee yeneen état yi. di. dëppoo ak seen population di am ay progression yu ñuy am te bu ñu changé chef d'état dafay fekk mu jar ko te buñ ko changé dañuy gis lu tax ñu changé ko loolu mooy dafay am ay ñenn ci réew mi ñoo xam ne dañuy mën biir mën biti xam li ci biir mm-hmm. xam li ci biti mm-hmm. léegi nag ne réew mi gëj naa am ñi xam ñi ci biir ak li ci biti loolu moo indi mhm. changement bi am mhm. te soppeeku amul léegi nag su ma ko bëggee leeral mhm. mooy Sénégal dafa am ay jamono ñu sukkandiku woon ci yeneen ay réew waaw maanaam sukkandiku woon ci yeneen réew yoo xam ne ñoo yoroon suñu baat mag ñi di xeex ci biir bañ jox ñu baat bi ci biti muy genre colonisation. colonisateur bi fi nekkoon. waaw xam nga Sénégal a été colonisé. waaw par la France. mais colonisateur boobu. ni nga mënee biir ak biti noonu la mënee biir ak biti. ni nga xamee biir ak biti noonu la xamee biir ak biti. léegi nag population ki nga xam ne moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy chef d'état yooyu. ak colonisateurs yi. Mhm. bi suñ mag ñi dajee nekk ay boromi xam-xam gis na yëf am na lu ci laxasu. Mhm. mënuñu jàng nekk boromi xam-xam gëm diine gëm lislaam pare ay nasaraan wala ñeneen di leen yilif te nekkuñ ci réew mi. Mhm. te lépp lu ñuy war a tax ñu war a man a moom suñu bopp am nañ ko xam nañ ko mën nañ ko lu tax moo ñu mën a mën a moom suñu bopp ñu dugg ci seen ay nit ñaan yàlla. ñu jël seen ay taxawaay. yow yu yu yu wér taarix xam ko. garde ko te ñu xam ko. xam li waral Sénégal am indépendance. Hmm. ak ñan ñoo ko ñan ñoo ko ñaan. Hmm. ak ñu ko ñu ko ñaxtu. Hmm. ak kan ci jiitu mu nekk lu yàggul dara. léegi nag loolu moo tax ñu am indépendance. et externe ma pas l'interne. ndax yàlla dafa bind ñaari monde. waaw le monde visible. et le monde invisible. les monde day. être humain uh-huh. et le monde et le mm-hmm. nit ñi dafa am loo xam ne moom lañ mën moom lañ mën a xam fa lañ mën a yem mm-hmm. am loo xam ne mm-hmm. yàlla dafa bind yeneen ay réalité yoo xam ne duñ ay nit di dund gën laa mën a gudd fan gën laa mën a yàgg gën laa mën a dund gën laa am xam-xam ëpp la doole gën laa bëgg li nga bëgg. gën laa bëgg tamit li ngay wut. li ngay wut. Mm-hmm. léegi nag su fekkee ne yow tooguloo. Mm-hmm. jàngat sa bopp. Mm-hmm. fi nga jëm ak li nga bëgg. ak li ngay yóotu. da ngay tamax tamax rek. moo la boo tamax tamaxee tamax tamaxee tamax tamaxee ba yegg ca. waaw ñu jox la ko. waaw na la li nga doon laaj a ngi nii. waaw fekk prévoir ko. waaw préparé wu ko. mënuloo ko. waaw xamuloo ko. te staff préparé wu leen. waaw xanaa da ngay dem dugg ba pare. waaw soo ko tànn sa staff loolu mooy li xew. waaw surtout waaw. da ngay dugg ba pare bañ fan la ba pare soo tànn ñi ngay àndal. waaw loolu mooy suñ feebaru réew. waaw léegi nag su ko defee yow ñi nga war a àndal. waaw ay xottu la ñuy nekk français rek lañuy ñuy jàng duñ xam li ci biir ak li ci biti li ñu jàng ci téere rek la xam te téere yi réalité yi newuñ ci. te boo demee ba ci biir sax ñoom ñoo ñoom ñu nekk ci bi ñoom ñoo lay bindal téere bi ngay jàng tegal la ko. jeex na léegi nag. su loolu amee nga dem ba ci biir bañ fan la ba pare. nga kan laay àndal. est-ce que foofu mën ngaa tànn àndandoo. déedéet foofu mënoo faa xam koy àndal ak ko dul àndal. benn jàngat boo xam ne. feebar la boo xam ne. bu logique bu nit ñi mën a nangu. deuxièmement. mooy état bi ngay jëm. am ñaari gouvernement yu am. gouvernement li nga xam ne mooy nit ñi. état bi nga xam ne mooy la moonu day jinne mooy les séatines ak li jinne yi gëm yàlla. dañoo am seen monde am ay gëm-gëm ak ay bëgg-bëgg. dëgg la léegi nag colonisateur bi. Hmm. dafa am lu mu fi bàyyi. bi mu ñu coloniser. dañ fay bàyyi ay éléments yoo xam ne invisible lañ. sont des éléments invisibles man am naa accès ci ñoom. muy monde invisible. monde invisible. man am naa accès ci ñoom. Hmm. yaa ngi dégg. loolu mooy waral les chefs d'état yi nga xam ne hmm. dañ leen di fal. bu ñuy def en bu nekk en moment de campagne. ay engagement yu dëggu la ñuy jël. loolu kay jaaxal na ñëpp. engagement yu dëggu la ñuy jël. waaw mais booba dañuy jël engagement yoo xam ne. mu ngi dalee ci ñoom jëm ci ñi ñu àndal jëm ci ñi leen di topp. waaw mais nekkul engagement yoo xam ne dafay nekk vis à bi ak fañ jëm prévoir uñ ko bu ñuy dem ci sëriñ si. waaw fal ma rek la ñuy wax. waaw mais lay garanti pal gi duñ ko lijjanti lay tax ñu xam fañ jëm duñ ko lijjanti dañuy gumba ci loolu parce que la ñuy jëm. dafa am lu ci feeñ ak lu ci nëbbu la ca nëbbu na duñ ko xam lu dul dañoo dugg ci biir pale bi fekk c'était c'est trop dugg nañ ba pare dugg nañ ba pare. mooy waral chef boo gis. waaw muy nekk moment de campagne. waaw danaa lii danaa laa danaa lële ba nit ñi gëm ko jële ki fi nekk teg ko. waaw bu yeggee. waaw bu ne asalaamaaleykum ba mu pare. waaw ah foofu la bi nekk. léegi nag ñooñu. waaw ñooñu ñëw nag taxaw lépp lu mu bëgg a def. waaw dina ko bëgg. waaw mais du ko mën a def. xam nga ma la ko joxee misaal. waaw mooy jigéen ji nga xam ne dafa rafet. waaw taaru. waaw ci sëy. ay góor ñëw bëgg ko. waaw bëgg koo takk te mënuñ koo takk mu mën a bëgg sëy na ku mu bëgg. gis na ku mu bëgg bëgg a gis na ko ki ko gis ki ko bëgg ko bëgg na ko. mais takk du am parce que am na ku nekk ci biir ku nekk ci diggante bi koo xam ne moo d'accord takk gi am te waaye ndaw su mënu ci dara waaja mënu ci dara. te ñuy def bëgg nu ñuy def ah. dañuy dem seeti ku ca man dara wala ñu ñaan yàlla mu mën ca dara defal leen ko réew mi ci situation yooyu la mën a ne ba mu amee indépendance ba tey indépendance lañ am ci biti mais amuñ ko ci biir man dama koo xeex ba am ci lu bëri ba nga xam ne léegi quatre-vingt-dix pour cent yi dañ na ci indépendance indépendance biir bi hmm. mu des lee vingt pour cent parce que c'est loolu tax ma def communication bi pour wax sénégalais nañ sant yàlla. waaw xam na léegi Sénégal dañ na ci loxoy colonisateur bi. ci biir ci biir ak biti. Euh. le Sénégal va changer. incha allah d'ici quelque temps. waaw loolu mooy waral léegi. Mhm. ma jox la misaal. waaw président boo xam ne sénégalais la. waaw. juddoo Sénégal. waaw yaroo Sénégal. waaw màggee Sénégal. waaw Sénégal jàngal ko tabax ko ba mu egg fu mu egg. mu nekk président. di seetaan alal réew mi nasaraan si di ko jël di ko yóbbu doomi réew mi xam ko. te mënu ci dara logique nga ci xel ban intérêt la am pour ñoom ñu jël alal di ko yóbbu da caa dara. mooy jànq bi bëgg sëy di ànd ak ay xaritam ñu leen di muur ñuy sëy. te mu gën leen a rafet wala sëy te mënu ci dara. ak moo tax suñ suñu de d'État yi. dañ leen war a jàppale dañ leen war a ñaanal yàlla dañ leen war a yokk ay renfort dañoo war a jël ay éléments réew mi. waaw ñu gouverner l' bi état wu Sénégal bi ñu sécuriser ko mooy waral fuite yi ñuy am. mais éléments réew mi ñooy ñooy gouverner. nit yi. ni ah. nit ñi nekk biti. waaw ñoom ñooy garder mais ñu di ci biir. ñeneen ñoo ko doon def <laughs> waaye léegi wàññeeku na de. waaw. li may wax nii. waaw ñoom ñu ngi may déglu. ñoom ñu ci biir. ñu ci man su may wax je suis à l'écoute de tout le monde man su may wax àddina yëpp may déglu. dëgg la waaw man su may wax. waaw mbooleem ku nekk ci biir te dëkk ci àddina. waaw da may déglu par A ou par tous les chefs d'état du monde. waaw ñu ngi may déglu actuellement nii. dëgg la. xam nañ may kan xam nañ lan laa mën. xam nañ lan laa sañ. Hmm. xam nañ lan laa xam lii may wax nii. waaw nit musu ko wax dans l' internet wala dans dans les. ñoom ci seen bopp kay ak li ñuy gouverner gouverner gouverner musuñ ko xam musuñ ko xam. wala waaw xamuñ ko sax. état bi sax des fois dañu am problème di pour am ministre bu leen bu óolu. waaw parce que duñ xam fu ñu koy changé rek dañuy changé parce que xam lu ko xam waral. parce que élément yi nga xam ne ñooy poussé ministères yi ministres yi. ñuy def li ñuy def. ministres yi seen jëm boobu xamuñ ko dañuy dem uti ay ñaan ba sonn duñ gis résultat bi duñ ko duñ ci mën dara jékki-jékki rek ñu changé la. voilà te doo xam doo xam lu ko waral président bi tamit di changé du xam lu ko waral day xëy xëy rek say rek di changé di changé di changé di changé rek moom ci boppam du mën a wax lan moo tax muy changé nit ñi xëy na rek wu na wala ñaari ne ko diw sangam nangam nangam rek acca lépp lu amoon ci njëriñ ci réew mi après ci ci dégage que wax nañ ma nangam nangam nangam c'est ça parce que duñ xam c'est quoi le pourquoi ba pare nga toog fii léegi def conseil des ministres à l'interne yéen ñëpp ngeen tëj seen bureau yéen ñëpp ngeen génn yeewu li ngeen doon mu nekk daa leen a yàq te yéen a ngi tëjoo te yéen a ngi tëjoo li ko wax te ñëpp a sérieux koo ci xool sa morom mooy sa yow mooy yow boo doon ngeen jàkkaarlee am gàcce a xam kan moo war a mën a génnee lii léegi luy espèce ci ban anam ay ah, sëñ bi xam nga ne yàlla ba muy bind nit ak jinne la bind waay waaw nit jinne yi ñoom ñooy ñëw xam nga jinne am na pouvoir yow booy dugg mu dugg ci si yow ah. dugg yow bu ñuy gis yow la ñuy gis. fekk na moom moo fekk moom moo dugg man su ma ne la jàkk damay xam ne yow la wala jinne la sooy wax damay xam ne yow la wala jinne téléphone sax su ma koy wax damay xam jinne wax ak moom wala nit. mais ñoom amuñ capacité boobu. moo tax ñu leen di li ñu leen di def moo tax secret d'état moo am problème léegi parce que mag ñi bu njëkk ba dañ daan sànq seen kii dañ daan aar seen affaire yi mag ñi bu njëkk ba dañ daan def lu ne pour aar réew mi léegi nag loolu mooy dellusiwaat. Hmm. loolu mooy del ci waat secret d'état day am euh, sécurité day am état bi dañ koy sécuriser léegi parce que man def ma ko Macky Sall ma man su ma yoon nekk hmm. état bi moo ma moo ma euh, réew mi yaa ngi dégg hmm. parce que nekk fële hmm. di lekk ka naan nit ñi reetaan loolu dafay arrêté ni jël ñun ñuy liggéey ñuy liggéey ñoom ñu jël yow ñu ay ressources comme ressources yi fi nekk bi nii euh, ressources yi xam nga lu leen fi indi ah. man bokk naa ci ci seen ñëw Sénégal. waaw ah, léegi feeñ fii. am nga fi dëkkuñ fi woon ne ñu ñëw si fii. parce ah, Sénégal mooy war a jël pouvoir àddina bi léegi diriger àddina bi Sénégal. Sénégal si boppam ah. Sénégal moom mooy de réew mi nga xam ne. moom la ñëpp di jublu après. xam nga triché woon nañ ko ci Dubaï mais demul. Dubaï dañoo ànd dañoo àndate woo parce que dañ ko defoon par tricherie. mais fekk Sénégal la woon programme bi Sénégal la woon. moo tax tous les marabouts sëriñ si yëpp ñëw Sénégal yàlla indi leen fi destination bi Sénégal la mais teewut lu ñu ko falsifié falsifié falsifié lu ñu ko tappale tappale tappale bi te yàlla lu bëgg def dana ko def. mënuñu ci dara yàlla ci lu mu bëgg rek day am day am. léegi nooy def ak état bi fi mu toll nii si jamono bi ñu nekk nii nii nii actuellement nga xam ne daanaka genn wàllu mun naa wax ne alalu réew mi yëpp foqat ni nañ ko si seeni loxo jël yóbbu. surtout li fi xew nii euh, ressources yi nga xam ne mi ngi feeñ ci dëkk bi. Mm-hmm. Sénégal yëpp di ci teg seen ba xam jàng xam ko mën ko liggéey mën ko génne léegi te gis nañ ni ñu ngi koy jël di ko jaay di ko dem. yooyu ñu ngi jël xaalis bi. loolu laa wax ba pare kay wax kay na naa lool day dañ parce que sabab bi la ko doon def loolu laa dindi di. mais am daanaka gennaa liggéey gi yëpp gars yi jënd nañ ko. ba yóbbu ko dañu fi fi nekk jusqu'à la fin du waaw fii li fi nekk ci ay ressources kenn mënu ko jeexal da ngay ba dee rek waaye mooy tous parce que mooy li mais jël bi ñu koy jël ñu mel ne ñu ne Sénégal la jël ba mu jeex mu tane. Sénégal teer bi def teer bi alal euh, pétrole bi alal euh, bi alal. ñu ngi jaay jaay ci dara mënuñu ko jaay ba mu jeex. mais arrêté na sax. léegi daal léegi daal colonisation bi nga xam ne am na ci biir. moom nangu. loolu waaw moom moom maanaam Sénégal am na indépendance ci biir. waaw waaw ni mu ko amee ci biti. ni mu ko amee ci biti waaw léegi léegi am na indépendance ci biir comme ni mu ko amee ci biti mais terewul ba léegi dafa mel ni euh, nit ñu joxee suñu indépendance dafa mel ni dañuy ñëw di ñu gunge déedéet loolu dafay arrêté non bi si même biti bi sax dafa mel ni dañuy gunge waaw indi fi seen seen seen benn seen benn euh, ni ñu ko waxeeti sax ay euh, base ay nangam nangam waaw seen base yooyu yëpp day dem yooyu yëpp day misaal bi papa Abdoulaye Wade joxe woon na ko wala moo nekkoon lancement bi ah. film bi day ñëw après loo gis lu nekk rek am na lu ko waral seen dem bi ak seen ñëwaat bi loolu lancement la woon lancement la woon dañ doon lancement la ñoom danañ dem un jour viendra on dañ dañ mas a quitté loolu mbaa nekkul lu yàgg la loolu de lu war a gaaw la sax temps yi bokkul soxna ga àddina temps yi bokkul temps yi bokkul temps yi bokkul maanaam temps bi ci biir ak bi ci biti bokkul ñun mën nañoo def li ñuy def ba pare waaw mën a def ay 6 mois 1 an 2 ans des fois mu def ay 10 ans 5 ans yooyu yëpp ça dépend li ñu liggéey mais ñaari temps yi bokkuñ alhamdulilah rabbil alamin ñi ci biir bu ñu la waxee ba suba. waaw mën nga toog deux mois ñu muy suba soo ko jot. waaw waaw dégg nga ñoom bu ñu ba suba moom. ñoom maa mooy seen léegi. waaw parce que vitesse yi ñuy daw moo bokkul. kon daal Sénégal bu mën a déggee mooy li leen naqari ba tax ñu di ko jooy. di ko jooy mënuñu ko ay carte mënuñu ko fàcc ay carte mënuñu ko fàcc ñaan ak kurus ak xam li ci biir moo koy def. comme ni ko mag ñi daal defee. waa te loolu ci nga nekk nii. ba daanaka gañe nga mun naa wax ne gañe nga guerre boobu. jot nga Sénégal ci loxol ñi ko téewoon. Mm. nangu foqan ñu ko. Mm. ba tegaan nga ko waaye te waaye tegaan nga ko ci loxol ñu ngi ko dénk. Mm. wala déet wala mu ngi ci say loxo ci biir gi. mu ngi mu ngi ci loxo yàlla. mu ngi ci loxol yàlla. waaye àddina bi yëpp mu ngi ci loxol yàlla di. Ah, mais pàccoo mais loo gis yàlla nag yore. am na kum ko kum ko kii kum kum kum kum tànn nga ñun moom kum tànn kum tànn waaw pour mu am sañ-sañ boobu pour mën a doxal ndigali yàlla ci la yàlla bëgg léegi yow def nga loolu ci réew mi mm. actuellement mm. Ah. ba xeex nga ko ba nangu ma ko mm. léegi nangu gi nga ko nangu dafa nekk ci say loxo nga téye ko jox ko kenn wala jël nga ko nga dénk ko ñi nga xam ne ni nit ñi nit ñi ñoom ko kooku lañ tànn teg ko nit ñi ki tànn teg ko tamit day dëppoo li nga xam ne mooy am ci que tànn gi tànn benn mais ñaari tànneef yi daal moo utee woon. bi ci biir moo waroon li daan am di am. ba ci président da daan bëgg def mais dafay. parce que ak yow nii. waaw am na ay président yi taxaw du ma déglu nii. seetlu woo maa ngi yow yaa ngi wax mu mel ne ku fi nekkul. waaw waaw. dëgg <laughs> dëgg la waaw man maa ngi leen di déglu maa ngi déglu seen commentaire ak seen wax. dëgg la dégg la en tout cas en tout cas euh, réew mi métti na. wala métti woon nii may wax yow nii. waaw ngi déglu dëgg la <laughs> alhamdulilah ñoom daal lañ téye seen réew ñu ñu téye suñu réew kenn ku ne téye lii moom ndax dañoo dañoo ku nekk da ngaa pàccoo dañoo pàccoo àddina bi suuf si ku nekk jël li nga moom na nekk na téye li moom lu ko yàlla wërsëgal ci lam tànn mu jël ko téye ko ku nekk li ko yàlla wërsëgal ñi mu téye ko parce que métti na ku nekk ñu ne la yaa moom lii jox la ne la may na la indépendance yu bëri ma leeral après ci kanam ci biir waxtaan bi. non pas ci waxtaan tey mais ci ay. yeneen waxtaan incha allah incha allah lépp luy secret état addina bi. waaw yëpp mu ngi sama xam naa tout les secret bi yëpp lu teg li ko fondé. li muy doxee ci li muy dox. lu ne. waaw naa ko tamit. mais sénégalais yi nag dañu war a bàyyi rëy moom loolu moom danaa ko wax tey. rëy mm. parce que dañuy gis seen njëriñ. non loolu basé na loolu ko doon def. maanaam sénégalais gis lu mu kii. loo xam ne njëriñam la gis ni ko engagé wu. waaw pour jàppale Sénégal. waaw ñoom ñu koy xeex. waaw loolu dafa fekk ka engagé woon pour pour jàppale Sénégal. waaw amul jumtukaay yu doy moo tax ñu koy xeex. mais déggoo man da ngaa sama wax benn yoon bu ma wax ne ñëw leen wala kaay lañ def da nga ko dégg non non mais a xaar boo ma dénk waxee sa dénkaan dama naan dénkuma kenn maa ngi fii lu ma dénkaan yax ko du dégg lu ma koy wax. loolu moo tax mooy mooy wax li may waan xaaruma ci Samba wala Demba te li ma lay wax dama koy def. mais yow yaa ngi def li xam nga yow yaa ngi def li la war. ku nekk na def li ko neex. mais xool mais ñi nga xam ne ñoom dañu leen dénk. lan lañ leen dénk. ñi mooy ñi dénk réew mi. mooy ñan état bi. waaw état bi. Mhm. nga xam ne ñun ñoo leen dénk réew mi. ku nekk da ngaa sa carte dem joxe ne kii laa fal. ñun ñëpp ñu bokk dëppoo am ku ñu fal teg ko ci réew mi. te xam naa ne li jaaxal sénégalais yëpp ba tax ñi di ko ko jam. Mhm. peut-être jaaxal na ko moom. Mhm. te solution am na. moom dafa war a dafa war a def effort ñëw ñëw ñëw ñëw. kon su boobaa man. non yow moom yaa ngi ci li la war. waa déedéet ñëw comme lan. ñëw par exemple bu ñëwee. Hmm. comme ni nga maîtriser biir gi. Hmm. ba nga xam ne nangu nga. Euh, euh, soxla ko ni nga ko waxee léegi moom bu ñëwee. waaw dafay mel ne loolu politique laa doon def pour mu. pour mu gis non moom moom na nekk fi mu nekk ma nekk fi mu nekk ni ko réew mi ñoree ba tax mu falu. waaw jaayam jaay bakkanam parce que président mu ngi en danger. waaw. yaa ngi dégg. président bu rëy mu ngi en danger. bu fu muy dem ñu garder ko. fu muy dem ñu ñu ñu ñu ñu watt ko. su ko réew mi jëralee loolu. mu tay la bakkanam. teg ko ci taabal ji. ba fu muy dem ñu koy garder ba ñu rey ko. te xam ne ne à tout moment mën nañ ko ko def. waaw te mu réew mi ko loolu. man Cheikh Omar Diop waruma man. lu ko raw sax. moo tax ma toog di wax ci télé bi di wax ci direct maanaam bakkan bi moom yàllaa ko moom sax man lu jëntuwuma. waaw li ma li lu sax te xam naa mu ngi en sécurité plus que président Macky Sall sécurité bi mu am. kon jeex na kon daal kon daal mun naa wax ne Sénégal population Sénégal. moo tax li muy liggéey. waaw xaar oowu ma xaaru ma pour ma dem waxtaan ak moom. déedéet pourquoi ma koy xaar xanaa moom ma gën a dëggu wala moom ma gën a bëgg lan laa koy doyee moom. waaw ah, dëgg la jumtukaay yi ma am pouvoir bi ma am fi ma mën a accès dafa mën a da koo mën a sax séen. dëgg moom bu tëddee day nelaw. dëgg la man bu ma tëddee maa ngi moom mu ngay maa ngi réglé ci yeneen ay monde yaa ngi defee yeneen ay affaire moom bu tëddee day nelaw te bu yeewoo sax bu ngeen dafay fàtte. waaw ay dimension. lan laay doyee Macky Sall. Ah, mais nag war na moom moom mu ñëw paa yow nga dem ci moom. paa yow nga soxla woo ma dem soxlaante wuñu moom na nekk ci lim ne ma ne ci li ma ne. bokkuñ ay yoon bokkuñ ay mbett jeex na kon daal Sénégal Sénégal seen naqar ñoom tamit. gannaaw ba doomi daara yi ji seen naqar jeexee. Sénégalais yi nañ xam ne tamit am nañ keneen. beneen position am nañ beneen position boo xam ne parce que doomu Sénégal yi mooy doomu daara yi. mooy doomu daara yi rek Sénégal 95 pour cent ko jëlee. ci réew jël nga Sénégal rek. wallaay kon ñëpp nañ xam ne Sénégal l'islam bi dañ koy tegalaat ci yoon wi. parce que li taxoon nit ñi di tayal li taxoon nit ñi di bañ a julli. li taxoon nit ñi bañ jaamu yàlla. yooyu yëpp bu ñu leen fexee ba canaliser leen maîtriser leen. waaw réew mi day nekk ci jàmm ñun ñëpp dañuy dal ñëpp dem jàmm yàlla jàmm am. alhamdulilah rabbil alamin leer na leer na leer na ci bopp ñëpp. Mm-hmm. leer na ci ñun ñuy déglu leer na ci ñun ñuy laaj. Mm-hmm. Euh, te doonoon na lu jaaxal ñëpp. te ñu gisoon ne yaa ngi wax ci point yu ne te waxoo woon ci point yi loolu moo taxoon ñu toog ne nañ la ci laaj pour nga def ci waxtaan. Mm-hmm. mais liñ ci doon xaar jot nañ ci sax. suñ liñ doon njortu si mm. ñuy déglu ak ñun ñu doon laaj mm. euh, di sant yàlla bu baax di di sant yàlla di la gërëm mm. di di sant yàlla moom ci boppam moom mi ñu dimbale mu mi am kàttan mu ngi ko joxe jox la ko ngir askanam ngir euh, ngir jaamam jaamam yi yaa ngi dégg ak diine ji nga xam ne teg na ko ci suñuy loxo jox ko yonent yàlla moom mu indil ñu ko Euh, li si daan am yëpp mu nekkoon ay njàqare yoo xam ne si doomu jullit ñi alhamdulilah gis nañ ne yu bari yu bari mun naa ne lépp sax dañ na léegi ci daan jaaxal nit ñi mu ne point bi desoon ci bokkoon ci yu desoon yi nga xam ne waroon nañ ci wax te waxaguñ ci woon joxe nga si nag daanaka mun naa ne genre avertisement boo xam ne si ñi nga xam ñi ngi xeex képp ku ko defati am na koo xam ne ni dana taxaw lu ñuy wax caw la ñi nga xam ne nañ bàyyi xel daara ji te nañ ko doxalee ni yàlla bëggee bañ ko doxalee ñëw niñ bëggee di torturer ñi ñuy jàng wala di leen jaay doole nañ leen teg ci ordre bi nga xam ne moom la yàlla tëral buñ ko defu timit teg nga ñoom it avertir nga leen avertir nga leen ñi nga xam ne aussi ñi ngi teg ay kuréel maanaam taxaw nga ngir dooleel leen état bi aussi macha allah problème bi ñu doon am ak seen ak population bi nga xam ne saa su ne population mi ngi def ay changement te tout le temps dafay nekk même seen loolu tamit ah, mun nañ ne. jeex na kon alhamdulilah loolu tamit lépp pour Sénégal la lépp pour doomu Sénégal la ah, alalu Sénégal pour Sénégal la liñ ko doon jël kon mun nañ wax ne ci jaay doole la woon si ñi nga xam ne loon dénk réew mi ak ñi nga xam ne ñoo leen ko dénk kon loolu yëpp jeex na kon alhamdulilah rabbil alamin looy wax ci ñi nga xam ne maanaam. ñu ngi taxaw di wax ne ah loolu mënta ne loolu amul parce que depuis yàgg na diwa ngi fi woon diwa ngi fi woon diwa ngi fi woon lan ngay wax ci ñooñu ci pour pour pour pour ñu jeexale ko waxtaan bi tey. waaw yàlla fan bu gudd dañu fekkee ko. Uh-huh. gisee dinañ wax. kon. lu tee xam waaw loolu de la ko <laughs> comme loo xam ne ay jëf la ay fan yu fan ci kanam. waaw wax la pour wax wala wax la pour def. alhamdulilah rabbil alamin kon mbokki internet yi nga xam ne nii ñu ngi doon mbokk di teew di ànd di déglu Cheikh Omar Diop ci seen YouTube Facebook bi nga xam ne moom mooy Cheikh Omar Diop doomu lislaam ñun ñëpp na ay doomu lislaam la waaye yow yaa volontaire nag. taxaw waaw mais yow na yow yaa ji yaa ji am na dafa am genre volontaire volontaire volontaire yoo xam ne. waaw kon <laughs> ñu ngi leen jox. anna ah, volontaire yaa fi nii noppi kii man parce que yéen a catégorisé na jullit ñëpp kii yaa am la ko naqari ci xolam kii a wax ci laam ñoom ki mën a jëf ci loxoom alhamdulilah kon nag. kon euh, ki mën a naqaru ci xolom bu ko xeewal xolom bi mu naqare ndax mun na koo indi cardiaque mën na ko indi feebar. dëgg la waaye kon léegi daal xol yi daal am na liberté. Hmm. am na liberté léegi si mboolem anam yoo xam bëgg na ko jaamoo yàlla te mu dëppoog ni yàlla bëggee. waaw hmm. alhamdulilah rabbil alamin te ma maa leen euh, am naa ko tey. alamin. nangu naa nangu lislaam. waaw nangu naa makka ci kaw loxo américain yi. ah loolu delluwaat naa lislaam mag loolu beneen waxtaan lay doon loolu beneen jotaay la beneen jotaan lay doon beneen jotaay lay doon naa ko màkk ci loxoom doomi màkk yi doomu lislaam léegi màkk mooy seen réew léegi maanaam lislaam delluwaat na màkka màkka jotaat na boppam ndax mu naa màkk ci loxol américain yi alhamdulilahi rabbi mais li ngay wax nii nag ci biir la xewe pour l'instant nii waaw ci biir la xewe waaw mais biti bi moom feeñagul waaye dana feeñ nañ ko xaar parce que nangu naa ñaari junni waaw prince bi nga xam ne ñoo taxawoon di xeex lislaam Makka. ñaari jox ko jox ko américain yi. deux mille mille deux mille prince. waaw ñaari junniy yoo xam ne tey fukkat naa leen ci loxo américain yi. allahu akbar ñaari junni. loolu ku ko génnee. ci état Makka. jeex presque jeex na koy daal léegi Makka lislaam dafay continuer doxaat comme na ko yonent bëggee woon. alhamdulilah. kon daal aj gi dana ñëwaat aj gi day delluwaat. waaw charia delluwaat. jullit ñi nekkaat. waaw makka dundaat. waaw nekkaat makka américain yi dootuñ fa am accès. waaw dootu ci mën dara. parce que euh, makka moom mooy symbole moom mooy. moo symboliser moo symboliser l'islam. Mm-hmm. fa la kaaba ga nekk. fa la ñu yàlla jubluloo. fa la yonent te fa la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mm-hmm. wàcce. te kon makka moom moo war a yor àddina bi lépp. comme ni ñu ngi waxee président alhamdulilah ñu ngi leen di jox beneen waxtaan du ma wax dig daje mais beneen waxtaan. beneen jotaay beneen jotaay. Eh, beneen yoon incha allah eh, bis bu ko yàlla dogal ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant. salaamaaleykum wa rahmatulah ngi gërëm waa internet bi yëpp. salaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf.